المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا وأن المساجد وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا وأنه لما قام لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون علي لبدا قل إنما أدعو ربي ولا أشرك به ولا أشرك به أحدا قل إني لا أملك لكم ذرا ولا رشدا قل إني لن يجيرني من الله من يجيرني من يجيرني قل إني من يجيرني من الله أحدا ولن أجد من دونه منتهدا صدق الله العظيم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 وخلفائه المهتدين وأهل طريقته الفائزين الرابحين أما بعد بنابن سنت يالله جلتين النبي صلى الله عليه وآله وسلم نيون بتايت صحيح إمام البخاري عليه رحمة ورضوان الباري كتاب الصلاة تسن جتابي بسنن باب الصلاة في الثوب الواحد ملتحفا به buntu julli euh, ci benn yëre yëre benn bu dong nga xam ne ne danga koy danga koy làmbaayoo koy danga koy muuroo ko gisoon nañ ci euh, asar bi moom az-Zuhri bi rahimahullahu taala ak taaliq bi nga xam ne moom mooy bu sayyidat Umm Haani radiyallahu bi nga xamante ne mi ngi ñëw ci maanaam indi na ko ci xadis bi gisoon ci suñu jotaay bi weesu walillahi alhamdu wal minna gisoon nañ ci xadis sayduna omar ibnu abi radiallahu taala anhu fi nga xam ne da doon wax ne gis na yeneen bi sallallahu alayhi wa mu daal di julli ci benn yére maanaam benn mbalaan boo xam te ne benn rek la waaye dafa daf ko jël mu jiwutle ko maanaam mu jiwutle cat yi maanaam loolu gis nañ ko ci ay riwaayaat amna ci benen riwaya bi nga xamne gis nañ ko ba tay muy waxoon ne loolu ci bu néegu sayyidat um salama la xewon radiyallahu taala anha naka nonu nonu la waxe ni tamit gis nako mu daal di jël ñaari cat yi tek ko ci kaw mbag yi manam ne nonu bimu ko ko le noonu la ko tege ci kaw mbag yi wàcce ko loolu tamit gison nañu xadiis sayyidat um hani bi radiyallahu taala anha bi xamantene mom mo xewon ci yawmul fath ak julli gi nga xamantene mom moom la yenente bi sallallahu alayhi wa sallam julli woon juróom-ñetti rakkaay te fekk waxtu woowu mu nekkoon waxtu yor-yor gisoon nañ ci tamit mi nga xamante ne maanaam ne ba mu julli julli googu mu julli nag dafa euh, jël maanaam dafa euh, lëmasoo woon rek sa sàngoo benn yére moom la moom la yoroon loolu maanaam benn mbalaan loolu tamit gisoon nañ ci tamit xadiis sayduna abu hurayrata bi radiallahu taala anhu bi nga xamante ne dafa am ku yeneen yeneen bi sallallahu alayhi wa ci ndax dagan nañu jullee ben yëre yenent bi sallallahu alayhi wa sallam ne awali kullikum sawban ndax kenn ku nekk ci yéen amna ñaar yëre lolu tamit gisoon nañ ni kon lolu mom moy li nga xamne mom moy wone li tax buñu ñu ben yëre ñu ko jullee lolu motax imam al-Bukhari rahimahullah wax tamit li nga xamne non lañ koy doxale mu daal di wax ni babun idha salla fi thawbil wahid falyaj'al ala atiqihi am na ci beneen ci ci ci riwaayatu saxeex bi mooy ala aatiqi maanaam ne bu kenn ci yéen dee julli maanaam buy julli ci benn yére benn mbalaan na ko teg ci kaw mbaggam yi maanaam na ko na ko na na ko jël waaye na teg mbalaan bi ci kaw mbaggam yi waaye loolu nag ñu bàyyi xel ne ci chartu mu war a maanaam li ci des mën a muur aw bi loolu maanaam lu mata bàyyi xel la te loolu gis nañ ci xadiis sayyidina abu hurayrata bi radiallahu taala anhu bi nga xam ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dafa wax ne laa yusalli ahadukum fi thawbil waahid laysa ala aatiqayhi shay nit ki bu kenn ci yéen julli ci benn mbalaan maanaam ci benn mbalaan dong boo xamante ne tegul dara ci kaw ay mbaggam maanaam loolu moom mooy li nga xam ne moom mooy li gën a teg tegginu loolu moom moo tax tamit yeneen ci mu wax ñu indi ba tey beneen xadis bu sayyidna abu hurayrata radiyallahu taala anhu ba tey mu ne yenente bi sallallahu alayhi wa sallam mu ne seede naa ne man maa dégg ci yenente bi sallallahu alayhi wa sallam mu ne man salla fi thawbin waaxid fal yu xaalif bayna tarafayhi képp koo xamante ne da nga julli ci benn mbalaan dong na daal di juwat la ñaar diggante maanaam di na juwat la cat yi loolu gisoon nañ ko te gisoon nañ suñu jotaay bi weesu ne loolu mi ngi mën a am su fekkente ne yére bi mbo bu fekkente ne mbalaan bi dafa nekk mbalaan boo xamante ne dafa yaatu ba nga xamantene dang koy mën di wër ba mëna a wërale mbir mi ba mëna a li nga xamantene mom moy ñaari chat yi boobu melni comme écharpe lolu nak bu fekkente ne euh man ta nek comme niñ ko gisee won ci euh, buntu bi nga xamantene mom moy buntu bi jitu manam biñu mujjé wona gis wala bok ci buntu yi nga xamantene mom lañu lañ gisoon ci suñu jotaay ba jitu jotaay bi wésu té mom moy euh mom moy ñu takk euh, làmbaay yi ci doq yi lolu tamit gisoon nañ ko waaye bu fekkente ne nag dafa dem lool mooy maanaam yooyu yëpp maanaam bu fekkente ne kon euh, mbir mi nag dafa xat ba xat dëgg-dëgg loolu ana lan moom mooy àtte bi loolu moo tax imaam al-Buxaari rahimahullah daal di indi baabul buntu ida kaana su fekkente ne as dafa nekk ida kaana su nekkee as saw bu mbalaan mi dayiqan di aji maanaam su fekkente ne yére bi nga xamante ne moom nga sol yére boobu dafa boobu lan moom mooy lan moom mooy àtte bi lolu nak li nga xamantene mom motax imam al-Bukhari rahimahullahu taala indiko moy ne borom xam-xam yi rahmatullahi alayhim dañu wuté ci masala boobu manam masala yi bala yére bo xamantene dafa xat ak bi manam su fekkentene nit ki dafa am yére bu yaatu sol yére bu xat lolu manam bu fekkentene ben yére rek la am ben mbalaan te mbalaan moma xat te muntu julli ci lolu lolu mom amul wuté ci bir borom xam-xam yi rahmatullahi alayhim ngir ne dafay nekk rek ci diggante tànn loolu wala boog mu sol mu nekk koo xam ne dafay rafle waaye su fekkente ne maanaam euh, am na yére boo xamante ne euh, dafa yaatu amul leneen maanaam wala boog buy julli ci yére bu xat ala kulli xaal li nga xamante ne daal maanaam ci tënk daal mooy tey bu fekkente ne damay julli ci yére bu xat ana loolu lan moom mooy atte bi li nga xamante ne moom moo mat leeral fii mooy ne boroom xam-xam yi rahmatullahi alayhim dëppoo nañ ci ne su fekkente ne nit ki ndax xam ngeen ni yére Eh, te loolu moom masala maanaam lu tax buutu bii ñëw la maanaam moom mooy ni yére eh, dafa am ñetti mbir yoo xamante ne yooyu la war a làmboo bu njëkk bi moom mooy dafa war a jot ba muur awra bi ñaareel bi ci des moom mooy dafa war a eh, dafa war a dafa dafa war a yaatu loolu moom mooy ñaareel bi ñetteel bi moom mooy dafa war a fatt maanaam ñetti yooyu noonu maanaam fatt moom mooy mu bañ a nekk lu yaraax maanaam mu war bañ a nekk lu transparent loolu moom mooy ñaar ñetti mbir yi nga xamante ne ñoom ñoo war a làmboo yëre imam al-Bukhari rahimahullahu taala fii dafa indi benn partie bi kese maanaam moom mooy bu fekkente ne dafa xat ngir ne boroom xam-xam yi rahmatullahi alayhim wuute wuñu su fekkente ne yére bi dafa yaraax ne julli googu julli googu baaxul maanaam tey nit ki su fekkente ne dafa jël yére boo xamante ne daf koo daf koo sol yére bi muur mboolem jëmm ji waaye yére bi boo xoolee nit ki di nga xam ne kii nit ku weex la wala nit ku ñuul la ngir ne yére bi dafa yaraax loolu noonu mooy julli boobu moom baaxul loolu euh, moom boroom xam-xam yi rahmatullah alayhim wuute wuñu ci lool te loolu lu mat a bàyyi xel la rawatina suñu jamono jii nga xamante ne léegi li ci ëpp rawatina euh, lu ba lu mat a bàyyi xel la rawatina ci jigéen ñi ak ci góor ñi tamit ndax yére yi bëriwaat na ci tissu yoo xamante ne nit ki bu ko solee boo ko séenee nii xam ne kii kii nii la mel maanaam nga gis deram da ngay gis subhaanallah xattaa ni der bi mel te loolu li ko yóbbu li tax loolu moom mooy tuuti bi dafa yaraax te loolu noonu lépp nag li ko yóbbee mooy ñàkk am maanaam xor xorma ci ak ak ñàkk a euh, bàyyi xel li nga xamante ne moom mooy euh, teggin yi nga xamante ne moom moo aju ci wàllu yére euh, te loolu nag moo tax imam al-Bukhari rahimahullahu taala indiwul wàll googu ci bunt bi maam dafa ñëw directement ci bunt bi nga xamante ne moom mooy wax mbiru yére bu xat ngir ne li nga xamante ne moom mooy li ci tegu ci wàllu yére bu jotul loolu dana ci ñëw insha allahu taala kon fii imaam al Buxaari yi mu wax ni yére bu fekkente ne dafa loolu tamit mu am lenn loo xamante ne mat naa bàyyi xel moom mooy ne boroom xam-xam yi rahmatullahi alayhim ah, bu fekkente ne yére bu xat la ima maanaam ah, ñoom boroom xam-xam yi rahmatullahi alayhim jàpp nañ ne julli ki nga xam ne moom julli na te julli bi li mu jullee mooy yére bu xat loola yi julleem googa dana wér waaye nag bu fekkente ne waaye euh, ñi nga xamante ne ñoom ñooy shafii yi rahmatullah alayhim ñoom dañ koy sib ci jigéen euh, wëllif góor maanaam bu dee jigéen la euh, dañ koy sib maanaam ci biirug xaraam maanaam dañ naan waaw bu fekkente ne góor la nag moom dañ naan rek dañ koo sib amma fuqaha u maliki rahmatullah alayhim ñoom dañuy wax ne sol yére bu xat dañ koy sib yére bu xat nag muy yére boo xamante ne boo ko solee dañuy xam ni nga mel maanaam comme pantalon jean comme yu yu xat yi comme euh, yeneen maanaam comme booy doole comme et ak yu mel noonu yooyu dañoo sib ku ko jullee amma ñi nga xam bu dee ci jigéen moom dafa xaraama jullee euh, loolu euh, moom mat naa bàyyi xel moo tax mu ne kon bil isnaadil muttasili fi awalil kitaab bi lay xaddasana yaxya ibnu saaleh moom mooy yaxya ibnu saaleh al waxaazi Euh, rahimahullahu taala daakantaram nekkoon abu zakariya dañ koy wax tamit abu salih alchaami ad dimashqi moom euh, waa cham la euh, waa cham cham moom mooy fépp mooy li ko dalee mooy jordanie palestine syrie foo côté boobu moom mooy cham voilà maanaam moom moom waa cham la moom mi ngi gane àdduna cent quarante-septième année ginnaaw gàddaay yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mi ngi génn àdduna du cent vingt deuxième année ginnaaw gàddaayu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam kon ci sëriñu imam al yu mag yi la bokk rahimahullah mi ngi jàngee eh, ci imaamu eh, malik ibnu anas rahimahullah ni ki noonu ak saïd ibnu abdul aziz ak fulayh ibnu suleyman ak zuhayr ibnu muawiya ak hamad ibnu shuayb al kuufi ak suleyman ibnu bilal ak ñeneen rahmatullahi ala al jamii nga xamante ne ñoom ñoo nekkoon ci génération boobu naka noonu imam al buxaari rahimahullahu taala moom taxoon na ci moom euh, moom ak ñi nga xamante ne ñoom ñooy euh, moom rek imam al buxaari dong moom moo soloo ci moom ci amul dig maanaam ngir ne boo xoolee deux cent vingt-deuxième année dafa tee dafa teel a génn àdduna euh, moom moo tax waaye ñi ci des tamit soloo nañ ci moom ba mu des imam an-Nasa'i rahimahullah maanaam ñi ci des ñëpp soloo nañ ci moom waaye dafa am ku dox seen diggante ak moom ba mu des imam an-Nasaa'i moo soloowul ci moom ci waa asxaabu kutubu sitta maanaam kon xadisam yi di nga ko fekk ci saxeexu imaam al buxaari saxeexu imaam muslim sunan imaam abu daawud ak imaam at-tirmisi ak imaam ibnu maaja rahmatullahi alayhim waaye doo ko fekk ci sunan ibnu maaja eh, imaam an-Nasaa'i rahimahullah naka noonu eh, waaye nag boo fekkee ab maanaam ci buntu xadis bi maanaam ci njàlbéenu xadis bi mu ne xadda mu mu daal di eh, wax ne xaddasanaa yaxya ibnu saaleh rahimahullah alwaxaadi maanaam alwaxaadi xamal ne kooku moom maanaam imam albuxaari rek la moom moo rek moo soloo ci moom tiru amul dig-digle ni ngi noonu ay sëriñu imam albuxaari yi tamit soloo nañ ci moom ku mel ne muhammad ibn yahya az-zuhali ku mel ne ahmad ibn abil xawaari ak muhammad ibn awf ak ibn waara ak ñeneen ak ñeneen rahmatullahi ala aljamii comme imam abu zuraata ad-dimashqi ak yaqub alfasawi rahmatullahi ala aljamii ak ñeneen ak ñeneen ñu bari solo nañ ci mom yahya ibn ma'in rahimahullahu taala mom neena mom moom manam mom neena fiqala manam mom degeural nako dëgëral na rahimahullahu taala naka nonu ñu bari ci borom xam-xam yi rahmatullahi alayhim dëgg degeural nañ ko euh motax imam ahmad ibn hanbal daal ni moom de waxuñ ci moom lu lu yiw loolu moom moo mu nek ko xamantene kon ku dëgër la donte al-Uqayli rahimahullah moom nee na jahmiyu la maanaam euh, da koo jiiñ ne euh, jahmiyu la euh, naka kon jahmi nag mooy ñi nga xamante ne dañuy faral di bañ meloy borom bi subhaanahu wa maanaam ne mooy ay mu'attila mooy ñi nga xamante ne meloy borom bi subhaanahu wa taala ñoom dañ koy dañ koy bañ dañ koy dàq ñoom dañoo jàpp ne borom bi subhaanahu wa nekk-nekk la waaye maanaam zaat la waaye sifaat yi ñoom dañ koy bañ rawatina ñi nga xamante ne ñoom ñooy sifaatu alxabari yi dégg nga mu ne qaala moom mu moom moom mu ne qaala xaddasanaa fulayx ibnu suleymaan moom waxoon nañ ne yaxya ibnu abi saalix bi yaxya ibnu saalix alwaxaazi bi dafay soloo ci moom raximahullah moom mooy fulayx ibnu suleymaan ibnu abil mugira abu yaxya mooy dàqantalam abu yaxya alxuzaaci raximahullahu taala mom wa Xuzaa ala manam ci tosan naka non dañuy wax ne tamit ci madinatul munawwara ala sakinha afdalu salatu wassalam fofu la nekkon borom xam-xam yu rahmatullahi alayhim wut nañ ci ay mbirum am na xamantene dañu ne daif la manam du ko wér comme imam ad addaarimi rahimahullah donte am na ñeneen ño xamantene ne ñoom dëgëral nañ ay mbirum al imam ibn adi rahimahullah taala ne na hada indi la basa bih qad ictamadahu lbuxaari fi saxaaxe وله أحاديث صالحة عن نافع عن ابن عمر النسخة مانام آه، إمام ابن عدي رحمه الله تعالى نانا آه، من دي كي جسنا ندر نكل تي أميرم دار لو أي نكل تي أميرم تسخ إمام البخاري سكن دي كونا تي أي حديثهم كي صحيح بي نكا نونو أي حديثهم كت أي حديث ويرلن يو يو يو باغلن تسولو نكي نافع عن ابن عمر النسخة مانام نافع an ibn umar comme ni nga xamne nonu manam ay hadith yu bari yo xamantene ben ben ci Allah leg la manam fulayh ibn sulayman mu jële ko ci nafi mu jële ko ci abdullah ibn umar ibn khattab radiyallahu taala anhuma nak nonu itap non la solo ci hilal ibn alim mu jële ci abdurrahman ibn abi umra mom mu jële ci abu hurayra radiyallahu taala anhu tamit ay xadis niki nonu nonu la solo we ci mbollem serigne nga xamantene ñom ñoy wa madinatul munawwara ndaxte xadis yi mu soloo ci ñoom yépp ay ahadisul mustaqima lañ waaye tamit am na ay garaib comme li imam az-zahabi wax rahimahullah mu ne eh, yarwi an saa'iri shuyuuxi min ahlil madinati ahadisa musta ahadisa mustaqima wa garaib maanaam eh, solo na ci mboolem sëriñ yi nga xam ne ñoom ñoo nekk madinatul munawwara ala saakiniha afdalu salaatu wassalaam ay xadis yoo xamante ne yu jublañ waaye tamit solo na ay xadis yoo xam ne dañoo tumuranke Ah, te bokk na ci tamit li mu ràññee moom mooy ne am na ay sëriñam yoo xamante ne jàngee nañ ci moom soloo nañ ci moom ku mel ne Zayd ibn Abi Unaysa ak Ziyad ibn Saad te Ziyad ibn bi moom moo ko magoon moom lu bari sax ah, te moom ah, bokk na ci li nga xamante ne tamit moom mooy xadiisam yi mingi ngi ci kutubu sitta waaye nag li imam az-Zahabi wax rahimahullah mun a wa gayruhu aqwa minhu am na maanaam keneen ku dut moom mën na koo gën a dëgër waaye nag euh, mënuñoo yegg nag fu ñuy waxee ne dafa daif euh, loolu kon lii moom mooy li nga xamante ne moom lañu mënoon a wax ci moom te ñu xam tamit ne euh, ñu ngi génn àdduna 168e année ginnaaw gadda yenente bi salallahu alayhi wasallam te mi ngi gane woon àdduna ci jamono ci mujjantalug jamono yi sahaaba yi radiallahu taala anum te moom moo magee imam malik lu tuuti maanaam lu tuuti la magee imaamu malik rahimahullah rahmatullahi على الجميع مم من عم سعيد ابن الحارث أتى مم آه، سعيد ابن الحارث تمت مم قاضي لتي مدينة المنورة على ساكنها أفضل الصلاة والسلام من سعيد ابن الحارث ابن أبي سعيد ابن المعلى رحمه الله تعالى نكو آه، مم مجي آه، جن أدنى سان فنتم أنا جناو قد ينتبي صلى الله عليه وآله وسلم moom te xam ngeen ne madinatul munawwara jamono jooja kenn duñ fa teg xaadi yu lu dul koo xamante ne ku dëgër la ku wóor la rahimahullahu taala euh, moom nag euh, mu ne na ko xaala nee moom ay xadiisam tamit ñu ngi ci as ñu ngi ci kutubu sitta maanaam mu ne xaala na saal naa laaj nañ jaabir ibn abdullah ibn abdullah te moom mooy sayidna jaabir ibn abdullah al ansaari radiyallahu taala anhu jaabir ibn abdullah haram رضي الله تعالى عنهما وارضاهما موم داكانتالام مو نيكون ابو عبد الله دنجو خامل ابو عبد الرحمن اك ابو محمد ييب اي داكانتالام نان مين ген ادنا 68ام اني امنا ني واخ با 79ام اني غيناو غادا يونتي صلى الله عليه واله وسلم واي حقيقه سيدنا جابر رضي الله تعالى عنه كوم نين كو وخيوان ميغي غاني ادنا 16ام اني غيناو غادا الله تا غادا يونتي صلى الله عليه وسلم mu ngi génn àdduna ci soixante-dix-huitième année yi ginnaaw gàddaay yenente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam loolu mooy li gën a dëgër li nga xamante ne moom mooy musnadam moom bokk na ci ñu ëpp li nga xam ne solo nañ ko ci ay xadis mooy 1540 xadis la solo yoo xamante ne muttafaqun alayhi imam al buxaari ak imam muslim dëppoo nañ ci solo 58 rahmatullah alayhima solo nañ ci 58 ci ay xadisam bokk ko imam al buxaari rahimahullah wéetoo ci 26 imaamu muslim wéetoo ci 126 ci ay xadis sayidna jabir ibnu abdullah radiallahu taala anhu wa arda moom mu ne an nabi an salaat yi maanaam laaj nañ ko an sa laaj sa al laaj nañ ko maanaam moom moom moom sayidna jabir radiallahu anhu an salaati ci mbirum julli fi saw bi ci yére bi nga xam ne alwaaxid bay kenn mbalaan benn mbalaan maanaam nga jël benn mbalaan rek daal di koy tërëx laayoo daal koy euh, euh, sangoo daal di julli ci mbalaan booba fa mone moom mu daal di tontu ne xarajtu génn naa ma annabi ànd ak yenent bi sallallahu alayhi wa sallam loolu tamit dañ cey xamee ne maanaam tontu bi laaj bi moom mooy est-ce que loolu mën naa nekk waaw wala déet tontu bi mënoon naa ne waaw wala boog ñu ne déedéet waaye dafa dafa nettale mbir moo xamante ne daf koy askanale yenent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam te loolu moom mooy naka jëkk daa man bu ñuy xool <coughs> xadis yi ñuy romb yépp loolu dañuy gis ne <coughs> mooy doxalinu saxaaba yi radiyallahu taala anhum niki noonu loolu tamit moom mooy doxalinu ñi nga xamante ne ñoom ñooy ah, imaam yu mag yi rahmatullah alayhim nga xamante ne bu ci lu ci bëri da ngay gis dañ naan ah waa nangam dagan na mu ne ah mën di dégg naa ci diw mu déggee ci diw nee na yenente bi sallallahu alayhi wa nangam ak nangam daal di wax maanaam loolu moom mooy seen doxalin daa iman te loolu bëri na luñ koy gis ci suñu xadiis yi walillahi alhamdu wal minna muné kon laaj na muné kon génn na man ak yenente bi sallallahu alayhi wa sallam fi baadi asfari ci len ci ay tukem neena euh neena kon fa fa fa jitu nee nga dégg nga imam muslim rahimahullahu taala neena na xaswatu euh waat la rahimahullahu taala mom moko ko leeral ci ci su ci saxeexam ci yoon bi nga xamantene mom la indi hadith bi Euh, te bokk na ci euh, euh, xare yenent bi sallallahu alayhi wa sallam njëkk xare ci ay xareem sallallahu alayhi wa sallam nee na kon mu daal di ko mu daal di wax ne fa jitu ma daal di dikk laylatan ak guddi nag li baax di am rii ngir lenn ci sama ay mbir maanaam daal lenn ci sama ay aajo yoo xamante ne moom laa amoon dégg nga loolu nag ba nga xamante ne moom la moom la def nee na fa wajattuhu ma fekk ko maanaam kon loolu tamit moom mooy bu fekkente ne da nga ànd ak kilifa dem tukki ji tamit léeg-léeg du aay nga daal di am loo xamante ne da ngay da ngay dem doxi ji say aajo bu fekkente ne yéen maanaam bërëb bi masalan da ngeen a escale fer na maanaam campement am na du aay moos nga dem am dox say aajo dellu si waat dégg nga waaye nee na fa wajattuhu nee na ma dellu dikkaat fa wajattuhu ma fekk ko yu salli muy julli waala ya te fekkoon mi ngi woon ci sama kaw saw bu mbalaan waaxidun mbay benn maanaam bu bo loola loolu laa def dégg nga nee na euh, ma daa di làmboo ma daa di sàngoo bi yii ci moom maanaam istimal moom mooy dama koo sàngoo ba mu mat sama yaram bi loolu moom mooy istimal ko maanaam dama koo mëf mël fawoo maanaam euh, bi yii ci moom wasallaytu ma daa di julli ilaa jaanibi yii ci wàllam maanaam ñoom saxaaba yi radiallahu anhum noonu lañ meloon suñu gisee yeneen bi sallallahu alayhi wa alihi wa do doxal nenn ñom dañuy daal di xëncu ci dem dox jëf jëmmi li nga xamantene mom lañu def te loolu ak yeewute gu reey la ngir dara gën ta tedd gar dara gën ta mag nga def jëmmi mbir mi yeneen bi sallallahu alayhi wa sallam di def ci jëmmi benn bërepp ba pare ci benn jëmmi benn jamono loolu mom moy li nga xamantene mom moy li gëna mag motax sahaba tax yi radiyallahu taala anhum buñ gisee yeneen bi sallallahu alayhi wa sallam yitte wu mbir wala mu nekk ci benn mbir rawati na bu fekkente ne loolu jaamu yàlla la ñoom dañ ci daal di taxaw te loolu tamit bokk na ci li nga xamante ne moom lañ ciy gis mooy ne yenent bi sallallahu alayhi wa sallam ànd ak moom mooy ki mu doon maanaam guddi gi donte dafa tukki doonul woon foñu doonul woon maanaam di bañ ne du naafila du julli waaye nag li nga xamante ne moom mooy li sax mooy ne euh, li nga xam ne moom mosu koo ba te ci julli naafila moom mooy witar witar moom mu tukki ak mu ñàkk tukki mosu koo bàyyi loolu waaye léeg-léeg mu bàyyi yeneen naafila yi guddi gi fekk dafa tukki moo maanaam ngir tukki gi ngir ay mbir yoo xamante ne yooya leneen la maanaam ay mbir yoo xam ne ñoo ko gàllankoor waaye lu mu am gàllankoor gàllankoor wala mu am lu xat-xat wala xat-xat witar moom mooy li nga xamante ne mosu koo bàyyi moo xam tukki na moo xam tukkiwul naka noonu ñaari rakkay fajar yi rabibatul fajri maanaam ñaari rakka yooyu tamit mosu koo bàyyi moo xam dafa tukki moo xam tukkiwul waaye nag ala kulli xaalin daf daan faral di julli di julli ay naafila te loolu moom mooy li nga xamante ne tamit lu jaadu la ci képp koo xamante ne da ngay sóobu ci yoonu borom bi subhaanahu wa taala ndax naafila guddi dafa nekk loo xamante ne diyaale la ak borom bi subhaanahu wa taala maanaam entretien intime bi nga xamante ne moom la nit ki di am ak borom subhaanahu wa taala loolu moom moo tax borom xam-xam yu màgg yi nitu yàlla yu sell yi radiyallahu taala anhum ñoom su fekkente ne dañoo toog te julliwuñu guddi naaf la wu ñu guddi déeyaale ak seen borom subhaanahu wa taala dañuy jàpp ne dëgg-dëgg loolu xeetu mbugal la ci mbugal yi gën a kawe lañ leen mbugal comme li imam Hasan al Basri rahimahullah li mu doon wax naan képp koo xamante ne toog na guddi maanaam yàlla xañ ko muy déeyaale ak moom guddi loolu li muy tekk moom mooy da koo mbugal mbugal bu rëy rëy ci bàkkaar yi muy def loolu lay tekki maanaam ndax da koo xañ bànneex bu kawe bi nekk ci nekk ak borom bi subhaanahu wa taala ci lëndëm gi yow ak moom rek ngir di déeyaale bànneex bu tollu noonu mu xañ la ko moom li muy tekk mooy mbugal na la mbugal mu rëy rëy loolu moom moo tax tamit euh, al imam Sufyaan ibnu Sa'iid as-Sawri rahimahullahu taala ne ñetti weer yoo xamante ne yàlla mbugalee na ma ma bañ a <coughs> naafi ngir dafa am sëru benn jigéen bu yëkkati ko woon gis óom yi loolu yàlla mbugalee ma ci ñetti weer yoo xamante ne euh, daf maa xañ ma ma maanaam man ma naafi la guddi loolu xam ngeen ni Euh, euh, kon euh, ñun bu fekkente ne suñu xaal bi ñu nekkee xaqiiqatan war nañoo mën a xam lu tax du du miracle daal lu lu lu la maanaam lu yenu maanaa la dégg nga loolu moom moo tax tamit loolu yépp buñ ko gisee war naa tax ñu gën a bàyyi xel suñu bopp sa suñu diggante ak borom bi subhaanahu wa taala segam ñoom ñu màgg ñooñu li ko dalee ci yenent bi sallallahu alayhi wa sallam ak saxaabaam yu tedd yi radiyallahu taala anhum ak ñi nga xamante ne ñoom ñoo ñëw ci ñoom ci seen ginnaaw ci nit ñu sell ak nit ñu baax ak nit ñu màgg fa borom bi subhaanahu wa taala ñoom ñooy jëf loolu maanaam te di ko préoccupé wu di ko bàyyi xel nga xamante ne bu guddi yi dee jot si dañuy yàkkamti guddi jot maanaam bu bëccëg gi jotee dañuy yàkkamti guddi jot bu ko defee ñuy wiitu ak borom bi subhaanahu wa di wittali ko ay aaya alquran ak ay zikar ak ay di taxaw ci kanamu borom bi subhanahu wa taala waye su fekkente ne lool moy nek seen xal te loolu mooy wane wanto gi nga xamne mom lañ lañ wanto comme niñ ko gisee ci hadithul isra bi ne guddi gi nga xamante ne moom la yenent bi sallallahu alayhi wa sallam tukki day wane ne manam déeyaale gi nga xamne mom la ñaari soppe yi déeyeen déeyaale ci guddi loolu nak bu fekkente ne nit ki mom yàlla da ko ko xañ moy ne tek nako ko mbugal mu rëy rëy rëy rëy te loolu li muy tegtal maanaam mooy la mu ko xañ moom bu bàyyi woon xel dana xam ne bàkkaaram yi sax maanaam yegg na foo xamante ne xaqiqatan bu bàyyi woon xel dina xam ne moom yëggut fenn parce que loolu maanaam mandargay tukki la maanaam yoonu yàlla loolu mandarga la ci moo tax képp ku sóobu ci yoonu yàlla waroo bàyyi naafi la guddi donte mënoo mënoo ko maanaam mën nga ko mën ngaa toog masalam Euh, xëy na doo def rakkaa yu bari amana ngir tamit euleuk lan ngay def maam ci sey beutek ak yu mel non waye lu mu new new bok nga dal di kabar ñaari rakka sax julli borom bi subhanahu wa taala waye bu fekkete ne ñaari rakka yoy dalay të wala bok nga yeewu lata fajar bi bu ko defé nga mën julli lu mu bon bon ñaari rakka waye su fekkete ne ñaari rakka yoy dalaa të ci guddigi ñu ne ñu ne deet bu boba li nga xamantene mom moy sax li nga man mooy au moins nga daal di jàpp dem taxaw wala nga toog ci sa kanam maanaam jublu ci xibla bi fas yéene ne lii moom dama koo def rek ngir jàkkaarloog sama borom ci guddi gi maanaam na def dara yow defal dara après nag ngay gën di évoluer ndànk-ndànk waaye dara bul ne rek def bul toog xattaa boo jàppuwul bu fekkente ne foofu nga toll maanaam noonu mbir mi tëwee maanaam boo jàppuwul boo yeewoo ci guddi gi ngir leneen sax taxawal nga toog bokk ci sa kanam borom nga ne ah yàlla de maa ngi. maanaam dama ñëw rek ngir déeyaale ak yow même bu dee benn minute la après nga jóg nga dem nga tëriwaat wala yu mel noonu waaye loolu yëpp maanaam en tout cas yow déeyaaleel ak sa borom subhaanahu wa taala ci guddi gi te bul ko bàyyi mu jàll loolu moom moo nekkoon yoonu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam te loolu moom moo tax te loolu muy yëkkati tamit maqaama yu kawe ci nit ki ñu deen day ngir bu la comme ni nga xam ne la ko borom bi wa taala waxe wa min al layli fatahajjat bihi naafilatan lak asa an yabaasaka rabbuka maqaaman mahmuuda te ci guddi gi na nga jël euh, na nga na nga jël benn wàll ci guddi gi nga jub jublu ci sa borom subhaanahu wa taala te loolu ak ndollent la ñeel la maanaam ak naafila la ak ndollent la ñeel la ndax loolu de boo ko defee moom mooy tax maanaam asa an yabaasaka loolay waral la ne borom bi subhaanahu wa taala dana la yëkkati ci maqaamu bu ñu gërëm maanaam te maqaamul mahmuud boobu maqaama la boo xam ne yenent bi sallallahu alayhi wa sallam moo ko jagoo ànd ak loolu yëpp maanaam maqaama mbir la boo xamante ne ñëpp ñoo ko bokk maanaam képp koo xamante ne da ngay saxoo di guddi ngay taxawal di sa kanam borom subhaanahu wa taala loolu borom bi subhaanahu wa taala léegi tey mu yëkkati la ci maqaama boo xamante ne bu gërëmu la loolu yàlla nañu yàlla boole ci ñi nga xamante ne dañuy dee yàlla moom ci guddi gi te mu bañ ñoo boole ci ñi nga xamante ne guddi gi dañ koy nelaw ba mu jeex takk wala boog ñu bokk ci ñi nga xamante ne dañuy dañuy sàgganee déeyaale kooku ci digganteem ak seen borom subhaanahu wa yàlla bu ñu yàlla boole ci ñi nga xamante ne daf leen di xañ googu lépp déeyaale ak bànneex bu kawe bi ci ne kon mu ne yenent bi sallallahu alayhi wa sallam bi mu ñëwee nee na Seydina Jaabir radiyallahu taala anhu nee na ba ma ñëwee ma daal di kon lamboo maanaam euh, mbalaan booba ma daal di julli ci wa ci wàllam nee na fa ba nga xamante ne im fa noppi na maanaam du mooyu na maanaam noppi na ci ci julli mu ne ko maanaam ana lan moom mooy tukki guddi gi maanaam lan moom nga doon def ci euh, guddi gi ci waxtu wii lan moom moo waral nga jóg guddi gi waxtu wii ngay ñëw fii ci man maanaam ak fa nga nekkoon yaa jaabir yow sayyidina jaabir radiyallahu taala anu nee na fa axbartuhu ma xabaare ko bi xaajat yi ci sama aajo ga nga xamante ne moom laa doon dox falamma ba nga xamante ne faratu nopp maanaam noppi naa nag ca loola xaala maanaam ci nettali ki nga xam ne moom laa ko nettali loolu tamit dañ cee xamee ne maanaam nit ki tamit boo ko laajee dara ba pare da nga koy bàyyi mu tontu maanaam munoo koo laaj-laaj bi muy tontu bàyyi woo ko mu tontu sax nga def ko laajaat ko leneen déedéet maanaam li nga xam ne moom mooy teggin xattaa ki nga xamante ne moom mooy jàngale sax maanaam euh, waxuma la ki ñi ki ñuy jàngal ki ñuy jàngal moom loolu moom daa dafa dafa gën a yanu maanaam mais xattaa kiy jàngale sax bu dee moom moo laajte maanaam na bàyyi ba gaa yi tontu ba pare ñoom moom mu doog a laajaat beneen laaj wala boog mu doog a wax leneen li nga xamante ne moom lay teg ci mbir mi ak jubbanti amaan na bu fekkee dana am lu ñu cey jubbante qaala nee na mu ne ko ma haada al ijtimaalu alladi raayt maa ana lan maa haada ana ana lan mooy haada al ijtimaal jii lag làmboo maanaam sàngoo gi nga xam ne moom la sàngoo muuroo gi nga xam ne moom la muuroo mbalaan boobu moom alladi bi nga xam ne raaytu moom laa gis qultu mu ne ko kaana nekkoon na sawbun Ah, benn yére la maanaam yaa nii li mu ci namm mooy daaqa dafa xat maanaam benn yéere la woon mu benn mbalaan la woon waaye nag dafa xat nag qaala nee na fa in yeneen yenente bi sallallahu alayhi wa sallam ne ko maanaam kon mu ne ko li ma làmboo ko nii mooy bi dafa xat moo tax hmm. su li mu xat moo tax ma def ko rek làmboo ko maanaam bañ koo def ni nga xamante ne moom la la wax ci xadiis yi weesu qaala mu ne ko fa in bu fekk bu nekkoon loo xam ne waasi am dafa Euh, yaatu falta faltaxif bi na nga ko na na na ko muuroo maanaam mooy lan euh, moom mooy nga jël ko nga jaarale ko ci poqataanu maanaam poqataanu càmmoñ bi nga indi ko ci ndeyjoor bi ci mbaggu ndeyjoor bi jàllale beneen poqataanu beneen bi ci des ci poqataanu ndeyjoor bi nga indi ko ci kaw mbagg càmmoñ bi mu ne bu fekkoonte ne dafa yaatu loolu ngay def maanaam koon mu wax ko ne ko ne ko man na am nga léegi am nga choix loolu mom motax bul bàyyi nonu rek julli nonu te bul tek ci sa kaw mbag yi dara loolu mom moy li nga xamantene ne loolu mooy dañu delu ci hadithu sayyidna abu hurayra bi radiyallahu anhu bim nan ko la yusalli ahadukum la la la laa yusalli ahadukum fi sawbin waaxidin illa an yaj'ala ala atiqihi atiqihi shay'un manam bu kenn julle ci yéen ci ben mbalan kesse te ludul xana mu daal di teg ci kaw mbagam yi dara maanaam loolu ah, moom mooy lii maanaam mu ne ko nag wa in kaana su fekkente ne nag dayiqan dafa xat fattazir bihi na nga ko ah, ittazar maanaam na nga ko làmbaayoo maanaam na ko làmbaayoo mooy làmbaayoo moom mooy mu mel ni comme sër maanaam gis nga ah, comme comme sër nii rek nga daal di koy jël takk ko loolu nag moom la def maanaam nga xamante ne da koo takk nii rek mu wàcc ba ci ba ba ba woyasu oom yi loolu nag moom moo tax maanaam ngir xat ji mu xat kon lii daf ñuy tegtale xadis bi daf ñuy jàngal ne su fekkente ni yéeri bi moo tax imaam al-Bukhari rahimahullahu taala tamit indiwaat ko maanaam ne su fekkente ne dafa yaatu ni ngay def mooy da nga koy euh, da ngay def maanaam li ñu wax ci buntu bii weesu waaye su fekkente ne dafa xat nag da koy daal def mbala da koy def làmbaayoo nga def ma ne comme ni ñu wax ci bunt bi nga xamante ne moom mooy li ñuy taqee mbir mi ci doq bi loolu moom mooy li jaadu maanaam niki noonu su mënta nekk ba mënta nekk tamit nga def ko noonu rek téye ko waaye nga yeew ko nga takk ko mu bale a daanu maanaam loolu tamit mu lu mata bàyyi euh, xel la xadis euh, bi imaam euh, imaamu al buxaari rahimahullahu taala indi na ko xadis numéro 352 ak 353 comme niñ ko rombe woon dana ko indiwaat ci 370 Euh, imaamu Malik indi na ko 374 ak 376 ak 2670 imaamu Muslim rahimahullahu taala indi na ko xadis numéro 518 ak euh, ñaari yoon ak 2099 ñeenti yoon imaam euh, Abu Dawud as-Sijistani indi na ko xadis numéro 634 ak 4081 imaam an an Nasaa'i imaam at-Tirmizi indi na ko xadis numéro 2767 imam an nasai indi na ko xadis numéro 5342 imam ahmad ibn hanbal lu bari la indi kon waa asxaabu kutubu sitta ñoom ñëpp indi nañ xadis bi ba mu des al imam ibn majah rahmatullahi ala al jamii qaala bil isnaadi al muttasili fi awwali al kitaabi ilayhi haddasana musaddad te moom mooy ibn musaddad ibn musarhad ibn musarbal ابن مرعبل مستورد ابن مرعبل ابن مغرب ولا ابن مغربل الأسدي موي أبو الحسن البصري رحمه الله تعالى دي بصرة رحمة الله عليهم ا دنگ موم nga xamne ne taalibe Yaxya ibn Saïd al-Qattaan la rahimahullahu taala ànd ak loolu yëpp nee na law ataytu musaddadan fa haddastuhu fi baytihi la yastahil maanaam bu fekkonte ne dig dem man jël sama tànk dem doxi ji ba dem di ci ci mu ci mu ci musaddad rahimahullahu taala ma jàngal ko maanaam ma wax wax jàngal ko ay xadis loolu sax dana nekk lu mu yelloo loolu du doon lu du doon lu dara lu mu yelloo lay doon moo tax mu bokk ci ñi nga maanaam ne imaam yu mag yi la bokk rahimahullahu taala ci taabii taabii ci aymatul xufaas la bokk rahimahullahu taala euh, moom comme ni nga xamante ne noonu lañ ko gisee woon mi ngi génn àdduna deux cent vingt-huitième année ginnaaw gàddaay yenente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam loolu la al imam ibnu saad wax rahimahullah ak mbooloo ci boroom xam-xam yi rahimahumullah waaye amul kenn ci ñoom ku wax ne at maanaam weer sàngam ci année boobu ci la génn àdduna année deux cent vingt-huit daal xam nañ ko ci lu leer waaye ban weer la loolu nag boroom xam-xam yi rahmatullah alayhim dëxaluñ ko imam al buxaari ak imam abu daawuda sijistaani rahmatullah alayhima ñoom ñaar ñoo solo ci moom ci lu amul kenn ku dox seen diggante ak moom loolu moo tax ñoom ñii lu bari nag lañ solo ci moom ànd ak ne ñoom ñaar rek soloo ci moom directement waaye lu baree bari lañ solo ci moom ñi ci des nag jotuñu koo gis moo tax soloo wuñ ci moom xoolal imam abu daawuda soloo ci moom 578 xadis te xam ngeen ni mus na sunan imam abu daawuda lu toll 4000 xadis rek la quatre mille hadis cinq cent soixante-dix-huit yëpp xaddasana musaddad la tàmbale maanaam loolu day wane ni imam musaddad toll ci moom maanaam ni mu màggee ci moom rahimahullah imam al buxaari rahimahullah trois cent quatre-vingt-dix-sept hadis la solo ci moom te loolu tamit day wane màggaayu imam musaddad rahimahullahu ci moom te moo tax moom imam al buxaari daan na wax naan musaddadu katmihi musaddad daal moom comme turam la mel rek sama sëriñ boobu mook turam ñoo nuroo maanaam mooy koo xam te ne yàlla da koo mëddal maanaam da koo teg ba nga xam ne saa yu waree wax wala muy def nam ko war a waxe fam koo war a waxe ca lam ko war a waxe jamono ja maanaam du ko mooy noona rek la koy defee maanaam loolu mooy musaddat mooy koo xam ne yàlla da koo teg exactement ci saa yuy wax wala muy def wala nopp mbaa muy toog wala mu taxaw mbaa mu tëdd jamono jooju dafa fekk ne loolu moo ci gënoon maanaam moom noonu la mel imam musaddad rahimahullah euh, moom ñeneen ñi ci des nag <coughs> solo nañ ci moom waaye dafa am ku dox seen diggante te euh, maanaam ak at yi ak imam an-Nasaa'i rahmatullah alayhima solo nañ ci moom waaye dafa am ku dox seen diggante imam Muslim ak imam Ibnu Maaja ñoom solo wuñ ci moom benn xadiis euh, <coughs> ci côté cent cinquantième année yi kon ci la génn gane àdduna <coughs> génn àdduna deux cent vingt-huit ginnaaw gàddaay ci bi صلى الله عليه وآله وسلم من قال أنا حدثنا يحيى آه تمم ابن سعيد القطان رحمه الله تعالى مسدد وغيره قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى رك ابن سعيد القطان ابن سعيد ابن فروخ القطان الإمام الحافظ رحمه الله مي أبو سعيد البصري رحمه الله ممتن waa basara la rahimahullahu rahmatan waasi'a muy sëriñ bu mag boobu su yaakaar naa suñ jotaay bi weesu ah ci ay mbirum ak màggaayam rahimahullahu taala mi ngi gën a àdduna cent vingtième année <coughs> ginnaaw gàddaay yenente bi sallallahu alayhi wa sallam génn àdduna cent quatre-vingt-dix-huit <coughs> ginnaaw yenente bi sallallahu alayhi ginnaaw alayhi wa alihi mu ne am sufyaan te moom mooy sufyaan ibnu said ibnu masruq al thawri rahimahullah moom lañ doon wax léegi ci maanaam euh, euh, ci xañ bi mu doon wax naan borom bi naa fi ci weer ngir gis bi mu gisoon omi <coughs> euh, jigéen ju ngelaw li ëffoon bi mu gis oom bi dégg nga maanaam kon moom abu abdullah mooy dàq dàqantalam rahimahullah mi ngi ganee àdduna 97e année ginnaaw gàddaay yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ñu ngi génn àdduna 161e année maanaam comme niñ ko gisee woon bis bi nga xamante ne moom la génn àdduna ci guddi googa ci la Muhammad ibn Salaam al-Bikandi rahimahullahu taala gane àdduna moom na waa Kuufa la woon rahimahullahu taala comme ni imam Shoba Shoba rahimahullahu taala daf doon euh, wax naan euh, inna Sufyaana ساد الناس بالورع والعلم سفيان ibn Saïd al-Thawri rahimahullahu taala moom des nekk na sangu nit ñi ci maanaam sàmm gi mu sàmm ak ci xam-xam bi nga xam ne moom la ko borom bi subhaanahu wa taala bu resal ko daf doon wax tamit ne moom mooy amirul muminina fil xadis te daf doon wax naan ida xaalafani sufiaana fi xadisin fal xadisu xadisu moom Shu'ba rahimahullah ànd ak moom mooy ki mu doon da doon wax naan su ma Sufyaan ibnu Saïd Athawri wuuteeg man cib xadis rahimahullah xadis manam kon la mu wax loolu mooy wax ji maanaam man la ma wax moom daanaka matatu la bàyyi xel te loolu day wane day wane mag gi nga xamante ne la Sufyaan ibnu Saïd Athawri rahimahullahu taala màgg mu nekk koo xam ne xam-xam yi màggal nañ ko الإمام ابن المبارك رحمه الله تعالى نانا ما كتبت عن أفضل منه ما نموس ما بن تكو جن سفيان ابن سعيد الثوري رحمه الله تعالى وإمام آه، ورقة أمم رحمه الله دفني لم يرى سفيان مثل نفسه سفيان مستقس كمان من بوبم رحمه الله تعالى نك كو خمنتني إمام لا بو خمنتني مي بو مغا مغا مغا مغا نك نتو يالا بو سل <coughs> koo xamante ne ñëpp dañ ko xamé ci dëddu aduna ak samu <coughs> borom xam-xamu tasawuf yi ñi nga xam ne ñoom yëngatu ci walu suuf ci yoonu yalla ñom dañuy faral di jël Sufyan ibn sa'id as-Sawri rahimahullah mu nekk référence naka nooru ñi nga xamante ne ñoom yëngatu ci xam-xamu hadis ak ñi nga dañuy yëngatu ci xam-xamu fiqh ñom ñëpp dañuy faral di netali waxu sufyan ibn sa'id ath-thawri mom nga xamantene euh ak ci ñi wax ci tafsir tamit ay waxam ci tafsir tamit dañ koy bàyyi xel niki nonu ci walu fiqh ndir amoon na sax ngir ath sawriya boo xamante ne doxoon na ba ci juroom ñaarelu euh juroom ñaarelu xarnu bi maanaam ci 7e siècle ci ba ba jamono joju mom euh ngiram ñi ngi doon dox lolu ngir ne. euh motax borom xam-xam yi rahmatullah alayhim nek ñoo xamantene dañ ko magal tamit ci domenu tas ci domenu tasawuf manam nga xamantene walu tasawuf tamit ak walu soobu ci yoonu yàlla tay bo demi ci tire yi tasawuf yi daa da ngay gis ñu naan ah sufyan as-Sawri de rahimahullahu taala wax na nangam ak nangam al imam Ibnu Uyayna rahimahullah bu de ci walu hadith li imam Ibnu Uyayna wax rahimahullahu taala ak imam Shu'ba wax doy ndax imam Shu'ba comme niñ ko gisee woon daf ni moom ànd ak moom mooy ki mu doon su wuuteeg imam Sufyaan ibn euh, euh, Sa'id al-Thawri <coughs> waxu Sufyaan ibn Sa'id al-Thawri mooy wax ji mi ki noonu al euh, imam ibn Mubarak li ñu wax léegi nee na moom musta jàngi solo ci ku ko gën loolu tamit al imam ibn Uyayna <coughs> <coughs> mooy beneen Sufyaan bi buñ naan as Sufyaanaani ñaari Sufyaan yi kenn ki moy sufyan ibnu sa'id as-Sawri kooku nak mo magoon waye ki ci dess mom moy sufyan ibnu Uyayna rahimahullahu taala da fay wax ne ashabul hadith salasa ibnu abbas fi zamaane wa sha'bi fi zamaane wa thawri fi zamaane borom xam-xamu hadith yu magi ñom ñoom ñett lañ moy sayyidna abdullah ibnu Abbas radiyallahu taala ma ci jamonom imam ash shabi muamir Aamir sharah al ash-Shaabi rahimahullahu taala ci jamonom الإمام سفيان ibnu Saïd al-Thawri rahimahullahu taala ci jamonoom kon moom moo te da daan wax naan maa raaytu rajulan aalamu bil xalaali wal xaraami min Sufyaan as-Sawri musumaa gis nit koo xamante ne xam na su lu dagan ak lu xaraam que bi ko Sufyaan ibnu Saïd al-Thawri waxe rahimahullahu taala moom nee na mokkal naa jële ci yenente bi sallallahu alayhi wa sallam lu ëpp juróom benn téeméeri junni ci ay xadis six cent mille yoo xamante ne amul benn xadis bu ma mës a dégg lu dul mës naa koo jëfe loolu tamit maanaam day wane màggaayam rahimahullahu taala moom mi nga xam ne mu ne kon qaala moom nee na haddasanii nettali na ma abu xaasim rahimahullahu taala te moom mooy salamatu bnu dinaar waxoon nañ ne doon nañ ko gis Euh, yéen a ngi koy fàttaliku bi nga xamante ne moom la wax naan euh, Abu euh, Hazim an Sahl maanaam ci taaliq bi maanaam ci jotaay bi bii weesu taaliq bi njëkk gis <coughs> moom la woon moom mooy sala <coughs> mooy Salamata dañ koy wax Abu Hazim al Aaraj almadani dañ ko doon wax al Aaraj ngir maanaam làgg mu làgge waaye Euh, Abdourahman mu al Arak moo ko gën siiw rahimahullahu taala moom mu ngi gane at mi ngi génn àdduna cent trente-cinquième année ginnaaw gàddaay yenente bi sallallahu alayhi wa nekkoon bokkoon ci ñi nga xamante ne tamit jaamukatu yàlla yoo màgg la woon al imam ibnu xuzayma rahimahullahu taala dafay wax ne siqa lam yakun fi zamanihi mislu ku wóor a ku dëgër a ngoog jamonoom kenn ku mel ni moom amu fa woon Euh, loolu euh, te loolu doy na aw lay maanaam rawatina ki nga xamante ne moom moo wax loolu moom mooy euh, al imaam ibnu xuzayma rahimahullahu taala te moom lañ doon wax imaamul aima imaamu imaam yi maanaam imaam ibnu xuzayma rahimahullahu loolu ki ñuy wax imaamu imaam yi bu ne sa jamono kenn mësta mel ni yow kooku loolu doy na doy na doy na tagg <coughs> maanaam euh, ci taabi'e yi la bokk nag al imam ibnu xibbaan nag moom rahimahullah daf ko dafa ne kaana qaadi ahlil madinata wa ubaaduhum wa zuhaaduhum maanaam moom qaadi la woon ci mooy qaadi waa madina la woon naka noonu moom moo nekkoon seen jaamukatu yàlla ci seen jaamukatu yàlla yu mag yi la bokkoon moo nekkoon sax jaamukatu yàlla bu mag ba moo nekkoon tamit ku du àdduna ku mag ca ñoom euh, rahimahullahu comme moom mii moom mu nekk an sahl te moom mooy sahl ibnu saadin ak ibnu malik ibnu xaalid ibnu xaalabata assaidi rahimahullahu taala mooy sahl ibnu saadin assaidi loolu waxoon nañu ne waxoon nañu ne ñi nga xam ne ñoom ñooy waxoon nañ ne boroom ne saxaaba yi radiallahu taala anhum ñaar rek ñoo ci am dàkkantal bu ñuy wax abul abbas ñaar te kenn ki moom mooy sayyidna abdullahi ibnu abbas ibnu abdul muttalib seydna abdullah ibnu abbas ibnu abdul muttalib ak kii ci des nag moom mooy sahad ibnu saadin as-saaidi bi ñoom ñaar dong ci saxaaba yi radiallahu anhum bañ jeex ñoom ñoo am dàqanteelu abul abbas ah, seydna sahad ibnu ah, saadin as-saaidi radiallahu taala anhu moom <coughs> mi ngi gane àdduna juróomeelu at laata hijra maanaam juróomeelu at laata gàddaay yenente bi sallallahu alayhi wa sallam kon moom ci saxaaba yu ndaw yi la bokkoon ndax yenent bi sallallahu alayhi wa bi muy dem madinatul munawwara mi ngi amoon rek juróomi at euh, ci kaw loolu kon euh, mi ngi am euh, fukki at ak juróom benn ci bi nga xam ne moom la yenent bi sallallahu alayhi wa sallam génn àdduna six ans la mi ngi génn àdduna quatre-vingt-huitième année ginnaaw gàddaay yenent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam te moom mooy ki nga xamante ne moom moo mujjee génn àdduna ca madinatul munawwara ala saakinihaa afdalu salaatu wassalaam te jege woon na téeméeri at ndax 88 boo ci yokkee 5 day daal nekk 92 dégg nga loolu moom euh, kon euh, moom ni euh, radiyallahu taala anhu kon ci saxaaba yi ci ci ñi nga xamante ne ñoom ñooy saxaaba yu ndaw yi la bokk fekk jamono yenente bi sallallahu alayhi wa sallam mujjee génn àdduna madinatul munawwara ala saakiniha afdalu salaatu wassalaam moom sayidna salim na saadin assaidi radiallahu taala anhu liñ ko soloo ci ay xadis ci yenente bi sallallahu alayhi wa sallam ñu ngi tolloog téeméer ak fanweer ak juróom-ñett 138 xadis imam al buxaari rahimahullah ci saxiixam bi 39 xadis la tudd ci moom moom mu ne annahu qaala nee na kaana nekkoon na rijaalun ay góor maanaam yu salluuna daan na julli ma nabi yi di ànd ak yeneen ci bi sallallahu alayhi wa sallam kii yi di aji fas uzurihim seeni seeni làmbaay ala anaaqihim ci seeni kaw ci seeni doq yi kahay ati sibiyaani kéem meloy uh, gone yi maanaam ni gone yi di def xam ngeen gone yi uh, xëy na léegi suñu gone yi duñ ko xam waaye gone yu njëkkee wala ca ña dëkkoon ca kaw ga ci jamono yàgg yi wala bu daanaka maanaam suñu jamonoy papa rek wala sax ah da ngay gis dañuy daal di tërëx laayoo benn mbalaan nii ah buñ ko defee ñu takk ko fii ci seen ginnaaw loolu xëy na sax ku seetaan télé léeg-léeg mu gis ko ah, waaw loolu maanaam moom mu ne noonu la gone yooyu noonu ni doon def nag mu ne nit ñi tamit ay góor ñi jamono yenent bi sallallahu alayhi wa sallam dañ daan julleendoo ak yenent bi sallallahu alayhi te noonu dong lañ daan def maanaam te loola xam ngeen ni Euh, bari waat na euh, euh, am na sax ñoo xamante ne jamono yenente bi sallallahu alayhi wa sallam te loolu tamit am na ba jamono yu yàggul dara maanaam ñoo xamante ne benn yére lañuy ñuy sol te yére boobu wala kër gi yëpp ba kër gi jeex benn nit mu maanaam benn yére rek a fi am benn mbalaan te kii génn moo koy sol maanaam loolu bu góor gi dee génn moom mooy ñu ne ah nañ ma àll yére bi maanaam ñu jël mbalaan mu mu daal di làmbaayoo maanaam mbalaan lay doon nag maanaam bu ko demee ndax du doon yére boo xam ne dañ koy sol comme nii déedéet day nekk lu ñu làmbaayoo rek bu ko defee bu dee euh, mu daal di génn bu dee moom mooy moom mooy euh, génn bu ñu bu fee dellu siwul kenn du génn euh, bu bu jigéen ji dee génn ñu jox ko moom mu génn dem keneen buy génn kuy génn daal yaay sol yére bi loolu moom loolu te boo loolu jamono yeneen bi sallallahu alayhi wasallam amoon nañu mel noonu te am na ba ba yàggul dara xaw ma nag ba xam ba léegi waaye ba bu yàggul dara loolu amoon na euh, xëy na nag ci tugal moom xëy na gëj na fi am waaye euh, ci suñu gox yee moom loolu moom euh, amoon na fa ba bu yàggul dara dégg nga mu ne kon nag te loolu dafa ñuy yóbbu tamit ñu war di sant suñu borom subhaanahu wa taala ci xéewal bu mag gi nga xamante ne moom la defal ba nga xam ne dañu am armoire yére toog at boo xamante ne yére yoo xamante ne. mais ñaari at ñetti at duñ ko sol du dañu dañu dañuy commencé fàtte ni yére bi amoon nañu loolu subhaanallah loolu mooy tegtale ne euh, euh, ci xéwal gu màgg la ñu nekk mu ne wayu xaalu ñuy wax leen nisaay ñeel jigéen ñi maanaam liñ leen daan wax naan laa tarfaana bu leen yëkkati ru'usakunna na seen bopp yi xattaa mbete yastawi mu yastawi mu daal di yemmoo ar-rijaalu góor ñi julu san di aji toog maanaam loolu maanaam mooy liñ leen di wax naan ah léegi jigéen ñi ni ngeen di def mooy buñ dee julli bu leen yëkkati seen bopp maanaam bu ñu siggee ne allahu akbar ñu siggi toog bu leen siggi yéen feeg góor ñëpp siggi wu ñu ko maanaam ngir lan ngir dañuy ba ñu siggi yam ci awra yi maanaam loolu moom mooy li nga xamante ne ñoom noonu lañ daan def lii nag xadis bi bokk na ci xadis yi nga xamante ne ñoom ñoo tax fuqahaa u maaliki yi rahmatullah alayhim jàpp ne suturaal awra nekkul farata ci julli maanaam waaye sunna bu ñu dëgëral la maanaam ngir ne su fekkonte ne farata la Euh, nekkul charte maanaam gisoon nañ bu masala boobu hmm. lii nag waxoon nañ ne dinañ ñëw ci li koy le ci xadis yii di ñëw ci bunt bi ci bunt yi ci téere bi xadis bii ci la ci ci yooyu bokk hmm. maanaam nga xamante ne ñoom dañoo gis ne bu fekkonte ne farata la maanaam ne wala chart la ci jigéen maanaam ci góoru maanaam wala bokk sa càngaay maanaam suturaal awra bu woyof bi waxuñu nag awra bu dëgër bi maanaam waaye awra bu woyof bi waaye amaa li nga xamante ne moom mooy loolu daan ci ñëw insha allahu taala ci euh, bunt yii di ñëw insha allahu taala mooy baabu maa yastaru min al awra dinañ ñëw ci yan lan la ñuy suturaal ci awra ak lan lañ ci dul suturaal lan moom moo ci farata ci ñu suturaal ko ak lan moo ci dul farata waaye ñoom ci awra bu woyof bi maanaam mooy bu ñu génnee kanamu nit ki ak ginnaawam maanaam ak li nga xamante ne moom mooy li ko wër noonu loolu suñ ko génnee maanaam mooy comme nit ki tey bu doon sol euh, Euh, bu doon bu doon sol euh, euh, loo xamante ne lu lu mooy kii yére bu tuuti maanaam bu ko doon sol wala sous-vêtement bi li li ci yem loolu maanaam moom mooy li nga xamante ne moom mooy li awra ci bu bu dëgër bi maanaam mooy li ci kanamu nit ki ak ginnaawam jeex bi loolu rek moom mooy aw awra bi voilà mooy bu ngemboo masalan voilà bu ngemboo li nga xamante ne mooy kum xale buñ ko couché li nga xamante ne moom lay nëbb loolu rek moom mooy awra bu dëgër ci euh, ci ci ci ci ci góor loolu rek mooy awra bu dëgër ci góor loolu nag su fekkente ne dafa feeñ ci fekk yaa ngi julli moo tax euh, hadis bi lool la maanaam mooy ne loolu partie yooyu feeñuñu woon li feeñ moom mooy li ñu tuddee al awratul muxaffafa te moom mooy li ko dalee ci jumbax bi ba ci óom yi maanaam loolu nag bu amee lenn lu ci feeñ te bu ñu gisee ni la ko waral moom mooy ne seen yére yi dafa xat ak yu mel noonu loolu maanaam ak tamit wala boog ngelaw li upp ko wala yu noonu loolu bu boobaa aayul te loolu daanaka mën nañ wax sax bu ñu xoolee boroom xam-xam yépp d'accord nañ ci sauf que li ñu wuute ci rahmatullah alayhim ci buntu boobu moom mooy ne <coughs> boroom xam-xam yi liñ ci wuute mooy ne su fekkente ne <coughs> euh, nit ki <coughs> ngelaw li moo ko upp bu dee ngelaw li ko upp loolu ñépp d'accord nañ ci ci euh, bu dee ci awra bi ci wàllu googu rek la maanaam masalan tey ngelaw li upp maanaam masalan nit ci lupp yi feeñ wala boog mu upp yére bi maanaam ci ginnaaw li ko dalee ci eh, jumbax bi wala yu mel noonu wa lu wàcc génn ba mu des fi nga xamante ne foofu la ñaari xar tànk yi di di tàqalikoowee foofu moom bu xësee ba yegg foofu daal di day daal di dugg nag ci li nga xamante ne bu feeñee loolu day yàq julli gi waaye bu fekkente ne xanafi yooyu la rahmatullah alayhim ñoom dañoo jàpp ne euh, kaar bi la maanaam rubo bi bu fekkente ne nit ki kaaru partie boobu feeñ na ci li nga xamante ne du awra bu tar partie boobu kaar bi feeñ na bu boobaa loolu mooy euh, bu ëppee kaar bi rek julli bi yàqu na bu ëppee kaar bi julli bi yàqu na bu fekkente ne xanaa bi la rax euh, bu fekkente ne maaliki la rahmatullah alayhim ñoom loolu bu yàq julli gi ngir ne ñoom dañ koo jàppee sunnatul mu akkana waaye jàppe wuñ ko charte ci biir julli amma su fekkente ne nag li tar la moom loolu moom day daal di yàq julli bi da maanaam da ko yàq ba faw te dafa war di baamuwaat julli gi ba faw amma su fekkente ne Shaafi'i yooyu la rahmatullahi alayhim ah, ñoom itam su fekkente ne nit ki moom loolu ngelaw lañ ko may maanaam bu dee ngelaw moo ko ëpp loolu bu boobaa mu yëkkati ko loolu du du waaye su fekkente ne donte ab bàyyi ma la moo ko moo ko moo ko yëkkati sax wala xale boo fopp wala yu mel noonu wala xale buy raam ñëw yëkkati ko wala yu mel noonu wala nga lonk fenn ak yooyu yooyu yëpp day day yàqu julli bi maanaam bu bu bu ci dara feeñee ci partie yooyu rek li ko dalee ci jumbax bi ba ci óom bi rek day yàq julli bi sauf que ñoom parti wu awra ñoom Shafi'i rahmatullah alayhim maanaam jumbax bi ak óom bi ci seen jëmmi bopp bokkuñu ci awra bi waaye nag faw nga am loo ci nëbb ngir ne boo nëbbul parti bu benn dara ci nëbb maanaam euh, dina am luy feeñ loo xamante ne ci awra bi lay bokk maanaam moo tax njaal beenu euh, oom yi faw nga nëbb ko ngir bañ dugg ci leneen li ci des di di feeñ maanaam loolu moom mooy mazhabu Shaafi'i rahmatullah alayhim amma Hanaabila rahmatullah alayhim ñoom ni ñu tënkee mbir mi moom mooy ne bu lu bu mu bëri lu mu Euh, bu mu yàgg maanaam tey masalan ngelaw li upp na ko mu mu daal di génn waaye bu boobaa su fekkee yow yaa ko génneel sa bopp moom loolu moom day yàqu julli waaye su dee ngelaw lee ko upp <laughs> nga di ko defaraat maanaam bu fekkee <laughs> defaraat bi yàggut loola du yàq julli gi amma defaraat bi comme ni nga xam ne noonu la ko xanaa xanafiye yi ni ñu ko waxee woon rahmatullah alayhim su fekkente ne euh, moom lu tolloog rubu ak gi la bu ko ëppee maanaam nit ki maanaam bu bu toll ak rubu tamit ànd ak loolu yëpp dañ ne da koo war a def waaye maa maadaama maanaam ku ñoom ak xanafiye yi ñoo xaw a jege wantoo foofu maanaam mooy ne su fekkente ne ngelaw li daf koo upp nga di ko delloowaat di ko defaraat loolu du yàqu julli waaye soo koy defaraat wala boog am leneen lu tax mu ubbeek mu mu maanaam mu mu mu deñ xale masalan di xëcc ko wala yu mel noonu nga di ko defaraat loola ba tey baax na waaye bu mu yàgg. yi nak rahmatullah ni ñu tënkee yag moy nga man ci def euh, euh, nga nga man ci def ap ruknu manam ap ponk ci ponk julli masalan lu wara a tolloog moment bi ngay ruko wala moment bi ngay sujud wala bo jugee ci sujud wala bo jugee ci rukkoo laataa ngay wat ci sujud lu tolloog lolu bu dé temps bob yépp euh, lu jël kaar bi o lu bi feeñ day yak julli manam ñi ci des tamit xanafi yi xanaa bi lay rahmatullahi alayhim maanaam yàgg googu mënef na koo nattee noonu dégg kon loolu moom mooy teqante li nga xamante ne ñoom ñoo am ci mazahibu ulama yi rahmatullahi alayhim waaye maanaam xadis bii day dëgëral waxu maaliki yi rahmatullahi alayhim ne bu amee lenn lu feeñ te feeñ nga tayoo ko ngir ne lii dafa fekk ne tayuñu ko bu boobaa loola du yàq julli gi waaye nag maaliki yi rahmatullahi alayhim ñoom dañ cee yokk ne même bu maanaam même boo ko tayee waaye bu boobaa dañuy sopp nga daal di maanaam dañ nga daal di julliwaat ci waxtu wi maanaam bu fekkente ne dafa am nit ki day julli am dara óomam yi ku ma génn wala boog ginnaaw bi li tolloog mbagg mi am lu ci génn balaataa muy yegg ci euh, fii ñaari tànk yi di euh, tàqali ko maanaam boobu balaataa muy foofu Euh, su fekkente ne dafa am ci génn bu boobaa sopp nañu mu julliwaat laataa waxtu wee jeex maanaam ba mu baamuwaat julli ji du nekk farata pour mu baamuwaat julli waaye nag loolu euh, xaqiqatan bu ñu xoolee euh, li gën a amaan li nga xam ne mooy li gën a wóor mooy li gën a sàmm mooy nga bañ a maanaam nit ki baamuwaat julleem su fekkente ne li ko yëkkati moom mooy moo ko tey su dee nag li ko yëkkati teyu ko. maanaam lu demee nekk ngelaw lee ko upp wala yu mel noonu te jëloon na ay précaution am te am na lu mu suturloowee loolu moom bu boobaa bu dee teyu ko moom loolu garaawul mais bu dee moo ko tey loolu moom mooy julli gi day maanaam day day day li gën daal ala kulli xaalim euh, mu julliwaat te mu julliwaat ba faw maanaam mu fayaat julli googu ngir ne awra bi ñëpp xam nañ ni foofu la toll te awra bi maadaama ne foofu la loolu yëpp mooy awra bi kon mu daal di julliwaat moom mooy li nga xam ne mooy li ràññee ko amma bu fekkente ne jigéen la maanaam jigéen li nga xamante ne moom mooy euh, wàllu googu ci moom maanaam mooy su li tollook euh, baat bi maanaam dënd bi euh, dënd bi ba ci tënk yi tënk yi su fekkente ne fuqaha u maliki la rahmatullah alayhim ñoom tënk yi lañ ci boole ne awra la bu dee fuqaha u xanafi yi la rahmatullah alayhim ñoom biiru tënk yi lañ ci boole waaye pas biti bi maanaam biiru tënk gi waaye pas biti bi waaye bu dee tànk yi biiru tànk yi mooy moom mooy awra waaye pas biir bi maanaam biiru tànk bi waaye pas biti bi wala boog maanaam kon euh, euh, kon maanaam biti ñoom maanaam contraire bi la tout le temps c'est-à-dire que biti euh, bi fii mooy awra ci ñoom waaye pas fii biir bi fii déedéet xanaa fi biti bi fii mooy awra ci jigéen waaye fii bokku ci bu dee euh, euh, tànk yi la biir bi mooy awra waaye pas biti bi waaye loolu mooy ba ci dojjoor yi rek bu fekkente ne ñi nga xamante ne ñoom ñooy euh, shafiye yi ñoom lépp mooy awra te bu dee te loolu itam lu ma a bàyyi xel parce que fuqaha u maanaam mooy awra bii nga xam ne dafa dëgër maanaam awra bi dëgër lañ lañ nekkoon di wax bu fekkente ndax shafii yi ak hanafiyé yi ak shafii rahmatullah alayhim ñom jigen ji leppum awra la hatta xar kanam gi awra la dako manam hatta xar kanam gi awra la voilà lolu mom moy xanafiye yi seen masal rahmatullah alayhim shafii yi tam ñom lépp jigen ji leppum awra la waye awra gi nga xamne nak moy bu dëgër bi ak awra bu woyof gi dañ ko am awra gu dëgër gi mom moy liko dalé ci baat bi ba ci suuf waaye bu dee awra gu woyof gi ñoom lépp dañ ko dañ lépp dañ ko ci dañ ko ci boole ba mu des ne xanaa bi lay rahmatullahi xar kanam gi lañ ci génne ak tenq yi waaye tànk yi dañ ko boole ci awra ji bu dee fuqaha u yi ñoom gi rek lañ jàpp ne mooy moo awra bu woyof xar kanam gi ak tenq yi tànk yi dañ ko boole ci awra waaw ñoom tamit dañ ko cee boole ba mais mais awra euh, mais attention loolu mooy awra bu bu bu bu woyof bi mais awra bu dëgër bi bu dëgër moom mooy euh, li ko dalee ci óom yi ci óom yi ndaw si ak li nga xamante ne moom mooy dal ci cat maanaam mbagg yi ak li nga xamante ne moom mooy fi baat bi toll ci dënd bi loolu moom mooy awra ci ndaw si ci maal kii rahmatullah mooy awra bu dëgër bi maanaam mooy ne ñoom jaam rek lañ permettre jaam moom mën naa mën naa muri bopp bi waaye ku dulub jaam amul droit muri bopp bi maanaam jaam bu jigéen moom mën nañ ko moo tax xam ngeen euh, yi nga xamante ne moom la maanaam yi ñuy yi ñuy wax c'est-à-dire que xam nga lu yéeme mooy le fait ñun li ñu wax ne jaam lii jaam lañ ko may loolu la ñu jàpp ne gor lañ pour wane ne dañoo libre il faut ñu génne loolu alors que loolu jaam lañ may mu def loolu tellement que ngoram rëyul moom am na am na yoo xamante ne mën na ko maanaam légèreté yoo xam ne mën na koo bàyyi moo tax euh, ngir ne lëkkaloo gi maanaam subhaanallah maanaam comme quoi ni ni ni ni ni ni mentalité wala idéologie muy renversé woo léeg-léeg ci yenn jamono yi ak yenn bërëb yi dem ba lu ñaaw de wëlbati ku nekk lu rafet dem ba lu ñaaw wëlbati ku nekk lu rafet ànd ak na nja maanaam loolu day day day day day day day day wane ni mbir moomu mel waaye nag ala kulli xaal li nga xamante ne moom mooy eh, awra bi nga xam ne moo tax kon ci biir loolu ci masala bii nga xamante ne mooy liñ traité woon ci wàllu góor yi bu dee jigéen ji loola bu feeñee ci moom maanaam mooy mu ngi julli masalan ngelaw li upp na bopp bi mu mu deñ wala boog euh, yére yi yëkkatiku wala boog fii ci ginnaaw li tolloo dënn bi ci ginnaaw mu am lu feeñ wala boog lii yooyu tayu ko bu boobaa dañuy sopp mu julliwaat dañuy ci Maalikee dañuy sopp mu julliwaat mais euh, ba waxtu wi ba balaa ba ba maanaam ci biir waxtu wi waaye su fekkente ne nag euh, Euh, waaye comme ñoom suturaal awra bokkul ci farata yi cuuf ci fard yi ci chart yi dañ koo boole rek ci sunna mu akkaday loolu du yàq julli ndaw si ci ñoom waaye boo xoolee ci ñi ci des loola mën na koo yàq te loolu ci maanaam ci ay teqantal yu am ci seen biir euh, mazahib bi comme ni nga xam ne noonu lañ ko waxee woon sànq bu dee ci wàllu euh, ku góor ki la maanaam mooy soo ko tayee wala teyoo ko comme masalan bu dee Shaafi'i la rahmatullah ñoom masala euh, su dee yaa ko tey ngelaw rek lañ mën permettre mu mun koo dindi waaye bu dee yaa ko tey julli gi yàqu na bu dee euh, maanaam et cetera maanaam ko topp ko ci teqantal boobu ñu waxoon ci chafe ci biir góor ñi ak maanaam xanaa bi lay bu nee xanaa bi lay rahmatullah alayhi bu fekkente ne dafa génn dafa am lu ci jot a génn euh, nga maanaam nga nga toppatoo ci di ko defaraat fekk julli gi ndax ndax ndax ndax xana fi xana Ah, xanaa bi lay rahmatullah ñoom wàllu googu awra la ci ñoom awra la ñoom yooyu yëpp parti yooyu yëpp awra la ci ñoom waaye ñoom eh, tënk yi lañ jàpp ne du awra voilà tënk yi rek lañ jàpp ne du awra xaraf yi waxoon nañ la lañ jàpp ne du awra maanaam et maanaam loolu yëpp maanaam bu dee ñoom la bu génnee bu bu muree ko wala bu dindee ngelaw li upp ko loolu da koy da koy dabaatal waaye soo ko dabaatalee ci xanaf yi ak xanaa bi lay rahmatullah ci sartu mu baña a ci sartu mu baña a ba pare ci sartu budé xanaf yee la lu wara a kar bi baña a ko voilà kon euh, lolu mom mo nekkon ci euh, masala bi lolu tamit bok na ci li nga xamantene mom lañ ci daanaka masala traité nañ ci sax ne danañ ko traité ci Euh, bokk na ci li nga xam ne moom la jàngee ci suñu xadis euh, bi moom mooy ne jigéen ñi dañ daan julli euh, ci jamono yeneen bi sallallahu alayhi ci biir jàkka loolu bokk na ci liñ ciy jàngee maanaam beneen bi ci des mooy mooy ne bu fekkente ni jigéen ñi dañuy julli ci góor ñi góor ñi soloo xamante ne xëy na dafa xat wala dafa yu mel noonu maanaam ñoom bu ñu yëkkati seen bopp maanaam buñ buñ dégg imaam bi ne allahu akbar rek ñu daal di yëkkati seen boobu nañ xaar ba mu ba góor ñi yëkkatiku ba toog ñoom ñu doog a ko maanaam loolu yëpp ngir mën a sàmmoon sàmmonte ak bañ a gis seen ay awra maanaam ak yu mel noonu nga xadis euh, bi imam al buxaari rahimahullahu taala dina ko indiwaat xadis numéro 814 ak xadis numéro 1215. imam muslim indi ko xadis numéro 441 imam abu daawud dina ko xadis numéro 630. am an-Nasa'i indi na ko xadis numéro 766 imam Ahmad indi na ko xadis numéro 15562 ak 22810 amma ñi nga xamante ne ñoom ñooy ñu ci des euh, maanaam muy imam at-Tirmizi ak imam Ibn Maaja rahmatullahi alayhim ñoom solo wuñu xadis rahmatullahi alayhim ñoom solo wuñu xadis euh, bi mais euh, kon ñu bàyyi xel ne bu dee ci wàllu jigéen ñi tamit li ñu waxoon ci góor ñi rek mooy li gën a li ñu jàpp na moo gën a dëgër incha allah mooy ne. Euh, euh, maanaam bàyyi imaginer jigéen du julli bàyyi bàyyi loxoom yi génn wala bu bàyyi euh, bopp bi ci biti ak yu mel noonu kooku noonu maanaam même moom ci boppam sax mu jàpp ne julleem baax na maanaam ndax loolu bokkul ci li sàmm loolu moom moo tax wax yi fuqahaa u Maaliki rahmatullah mu wax loolu ma maanaam ne suturaal awra nekk na sunna mu akkada dong la te yàgg yëggul ci charte yi loolu moom moo tax mu mat a xoolaat bu baax maanaam li nga xam ne mooy li gën a sàmm mooy li gën a wóor imaginer julli ak ni mu amee solo moo daal li gën a sàmm li gën a wóor mooy nga suturaal ko tamit te ñoom it waxuñu la ne rek ba tey ko bàyyi noonu de déedéet ñoom it waxuñu la loolu maanaam mooy ne loolu bu feeñee te tayoo ko loolu lañ lay wax ne la ah kon nag loolu de toute façon du yàqu julli gi nangam nangam mais li gën a sàmm mooy nga julli wat loolu moom mooy li nga xam ne boo ko defee daal di nga def li nga xamante ne rawatina ni kuy soobu ci yoonu yàlla dafa bokk ci ay mbiram mooy li nga xam ne moom mooy daa war di jaamu yàlla kéem noo xamante ne mboolem borom moom dinañ dëppoo ni lii mu def baax na naam fii mbir mi yëggul ci foo xamante ne euh, xilaaf bi nekkul lu ñu maanaam wuute gi nekkul loo xamante ne dëgg-dëgg euh, matuta bàyyi xel waaye fii dalil yi dañoo dóorante wala Shaafi'i yi li yi wax rahmatullahi alayhim loolu moo gën a mat a bàyyi xel amaan maanaam ndax moo gën a dëgër moo gën a wóor maanaam mooy su dee dafa am lu ko dindi lu loo tayul comme lu demee nekk ngelaw ak yu mel noonu loo xamante ne vraiment amul kenn ku ci def dara amul benn acteur loolu bu boobaa nga defaat ko ci saa si nga julli loolu garaawul te bu boobaa dañuy sopp nga julliwaat ci waxtu wi waaye su fekkente ne nag li ko yëkkati doonte ab bàyyi mën a sax moo ñëw yëkkati ko wala xale wala yu mel noonu loolu bu boobaa julli gi day daal di yàqu loolu mooy waxu Shaafi'i amaan na loolu mooy li gën a dëgër te mooy li gën insha allahu taala ndax mbir yi dañoo dóorante xadis fii xadis yi da gis ne sukkandikoo ci xadis bu mel nii ci circonstance yu mel nii amaan na dese naa dëgër lool ndax xadis bii day wax ne ñoom lii lañ amoon moo tax te beneen bi ci des moom mooy euh, amul luy wane ni am na seen awra feeñ na waaye lii lii xam nga xadis bi waxul ne seen awra feeñ na dafa ne rek nañ moytandiku loolu ngir ni moo gën a wóor amaan na awra yi mën a mën cee feeñ donte loolu dana tax ñu mën a wax ne ah kon nag waaye maanaam loolu dana tax ñu ne bu fekkee awra yi dafa feeñ te teyoo ko waaye la ca feeñ mooy yi woyof yi mooy li ñëw awra bu woyof te te loolu bu boobaa ñu ne ah li gën de mooy nga julli sans loolu ànd ak ne xatta fuqaha u maliki ñoom ñëpp dëppoo nañ ci ne awra boobu xatta woyof bi dafa xaraama xool masalan ñun amuñu droit jàkkaarloo ak jigéen doo xam ne muuruwul masalan ñu koy xool amuñu droit bi dafa xaraam ci ñun waaw parce que awra la bu war waruñu ko gis loolu tamit mat naa bàyyi xel tension loolu mën naa bàyyi xel fii maanaam lépp loo xam ne awra la amoo droit xool ko moom dafa xaaraa ba xool moom maanaam attention si kii koy sol maanaam te te lii ñuy wax nii ci julli la nekkul rek ci awray kese am na teqantal buñ ci joxe buñ ci waxoon ci jotaay la weesu ci wàllu soo fekkente ne maanaam nit ki maanaam tey malgré que lii lañ naan la ci julli nii ngay sol masalan euh, lu dalay sa jumbax ba ci óom yi xaqiiqatan euh, loolu daan ci ñëwaat ci tekkantal mais loolu tegtalewul ni boo boo boo euh, da ngay sol lu mel noonu dem dox ci mbedd bi amoo amoo droit bi parce que jigéen ñi tamit dañoo am xàq ci góor bi ni góor bi amee xàq ci jigéen ñi maanaam li ñuy wax góor jigéen bi warta mel nii warta soloo nii ngir fitnaal gi muy fitnaal góor ñi góor gi tamit am na lu mu warta soloowee ngir bañ a fitnaal jigéen ñi loolu dafa mat a bàyyi dégg nga al imaam al buxaari rahimahullahu baabu salaati fil jubbati shaamiya baabu bunt bi asalaati mooy julli fil jubbati ci jubba maanaam jubba xeet mooy xeet yére la boo xamante ne eh, day mel ni maanaam day day da dalay làmboo nii mais dañ koy takk fii fii lañ koy takk xeetu wala boog sabadoor lay doon rek sabadoor boo xam ne dañuy ubbi day ubbeeku fii maanaam mu takkoo nii mu takkoo ci baat bi wàcc loolu moom mooy jubba dégg nga am na nag euh, euh, léeg euh, exemple la yaakaar na léeg-léeg sëñ Mansour daan na ko solo léeg-léeg maanaam benn wàcc nii wàcc genre am genre kap ci kaw nii waaw loolu mooy jubba dégg nga al jubbatu saamiya boo xamante ne saam lañ ko defaree li tax imaam al buxaari rahimahullahu taala wax waxi saam maanaam mooy euh, booba jamono yenente bi sallallahu alayhi wa ñoom du ñu woon ay jullit maanaam mooy naan ala kulli xaalin euh, li nga xamante ne moom mooy yé maanaam du yéefir yi defar rek loolu lay tekki maanaam yére bu yéefir yi defar li tax mu tuddee al jubbatu saamiya fii mooy ne xadiis bi muy indi ne yeneen bi sallallahu alayhi loolu la soloon baat boobu lañ ci jëfandikoo ngir ne waxoon nañ ne imam al-Bukhari rahimahullahu daa iman day faral di bàyyi xel jëf yeneen bi sallallahu alayhi ak ay waxam wala alquran ak ay waxam maanaam nga xam ne day jëfandikoo jëm ñu baat loolu moom moo tax mu wax ko fii mu ne waqaala wax na alxasan te moom mooy ibnu abul xasan albasari rahimahullahu taala fi siyaabi ci yére boo xam te ne yan sujuha da koo euh, da koo ràbb almajusi yu koo xam ne majus la gis nga maanaam Euh, xam ngeen ni jubba saam yi la wax waaye fii majus maanaam ngir wax rek ne xam ngeen majus mooy zoroastrien mooy koo xamante ne euh, tàkk-tàkk bi lay jaamu kooku euh, ñooñu ñooy ñi nga xam ne ñooñu xeetu bokkaale yu mag la def ànd maanaam ay yéeféer lañ ci maanaam ci gu leer waaye nag ànd ak loolu maanaam moom lay wax ne moo tax mu indi wax ji mais koo xamante ne dafa sol maanaam yére boo xamante ne ab majus moo ko ràbb mu lam yara mom gisul bi haa ci lola ba san dara lu aay maanaam moom nee général alxasan imam alxasan albasari rahimahullahu taala nee gisul daralu ay ci lola wax jooju nak al imam manam ne li waxu gi nga xamantene mom la imam abul imam hasan al albasari rahimahullahu taala Euh, Nuaym ibn Hamad ci nusxaam bu siw boobu jële na ko ci Mu'tamar an euh, Hisham mooy euh, mu jële ko ci moom rahimahullah Hisham mooy ad-Dastawaa'i rahimahullahu taala mu jële ko ci moom mu ne laa ba'sa bis salaati fi thawbi alladhi yanshujuhu al-majuusi qabla an yughsal maanaam aayul ci ñu solo maanaam ci nit ki jullee ci yére boo xamante ne ab majuus moo ko ñaw moo ko ràbb laataa ñu koy raxas maanaam ngir wane so maanaam mbir mi euh, li ci li yéefir bi defar bu jugee ca machine ca ca usine ba bu ñëwee mën nga koo sol jëm nga naan ay woy xam nga yéefir yi boo moytuwul nangam déedéet maadaama gisoo ci loo xamante ne màndargay sobe la loo xam ne lu leer na lii sobee ngi ci wala yu mel noonu rek mën nga koo sol loolu moom mooy li nga xamante ne euh, moom la ci jublu maanaam mu ne wa qaala wax na maamar mooy ibn rachid rahimahullahu taala nee na raaytu gis naa az-zuhri mooy al imam imam az-zuhri muhammad ibn muslim Shihaab az-Zuhri rahimahullah taala yalmas yalbasu muy sol min siyaabil yamani ci yére yi waa yaman yi maa loo xamante ne subira dañ koo euh, dañ koo cuube bil bawli ci ay mbéewal maanaam mbéewal lañ ko cuube mooy ah waaw nag euh, lii li nga xamante ne moom la ci jublu mooy ne bi mu ci jublu du du lu ñuy lekk lañ ci jublu wala boog bu fekkente ne dañ koo cuubee mbéewal itam raxas maanaam raxas nañ ko laataa ñu ci mu ciy julli waaye li ci nam rek moom mooy xam ngeen ni jugee jógee ci dëkk yi firi ñaare boo xoolee pourtant yi muy wax yëpp waxul ba tey jubbatu Sham yi ci gis nga taaliq yi muy indi nii waxul affaire Sham lu jugee Sham waaye dafa fekk ne jamono yeneen bi sallallahu alayhi wasallam waa Sham ay yéefir lañ woon loolu lu ci lool la maanaam du ñuul ay jullit waaw mu bëgg la wax rek ne la boo xamante ne ci réewu yéefir lañ ko defaree. loola bu ñëwee mën nga koo sol garaawul amul problème voilà lii nga xamante ne ca yaman lañ ko doon defare mu ñëw te euh, euh, liñ ko doon cuubee sax mooy ay mbéewal maanaam ay mbéewali lu ñuy lekk yàppam loolu euh, moom la wax nii ne imam azuri rahimahullahu taala moom daka daan sol di ci julli waxu maamar imam maamar bii nag ak imam abdourazaq kon soloo na ko ci musannafam jële ko ci moom muy maamar maanaam moom imam abdourazaq ne man gis na maamar nee na gis na imam az-zuhri rahimahullahu taala di doxalee noonu euh, loolu euh, te euh, dégg nga loolu mu daal di ciy teg ne wasalla julli na aliyun sayyidina aliyun ibnu abi talib كرم الله وجهه في ثوب كبير بو خامني غير مقصور بن مسترخص لا يير يير بو خامني كين مسوكو فوت غير مقصور ا آه، بن مسوتا فوت ا آه، لول نك امام آه، ابن سعد رحمه الله تعالى موم جيل نكو تي عطاء ابن محمد يور بو خامني عطاء ابن محمد لاكو جيل مون رايت عليا صلى الله عليه قميص كرابيس غير مقصور dégg nga maanaam kon gis na Seydina Ali karamallahu wajhahu mu julli ci xamis boo xamante ne euh, musuñu koo raxas maanaam lool tamit euh, day tegtale euh, ne li nga xam ne moom la jublu ci wax ji maanaam moom imaam al-Bukhari rahimahullahu taala li tax mu indi bunt bi maanaam ci gàttal kon yére bu fekkente maanaam nu mu mënta mel maanaam fu mu mënti jóge lolu du problème bi problème bi rek mom moy ndax sobewu na waaw wala déet ndax tamit matière biñ ko defé rek ndax laat na waaw wala déet lolu rek mom moy li nga xamante mom mo mata baye xam madama condition yooyu remplir nañ ko lolu bu woba problème do ci amati muné qala bil isnadil muttasil fi awwal al kitab ilay hadathana yahya te moy mooy abu zakariya ibn musa muusa ibnu abdirabbihi ibnu salim alxaddaani rahimahullahu taala te mu gën a siiwee ci al Yaxya ibnu Muusa al euh, Bulaxi as-Saxtiyaani rahimahullah moom waa Kuufa la ci cosaan hmm, ñoom ñu gën a siiwee ci xatt wala boog ibnu xatt rahimahullahu taala mi ngi génn àdduna comme euh, ni ñu ko gisee woon deux cent trente-neuvième année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam moom Yaxya ibnu Muusa al Bulaxi euh, moom waxoon nañu ko ne al imam ibnu sakan rahimahullahu taala waxoon na ne moom loolu jàpp ko qaayida la foo gisee imam al buxaari rahimahullahu taala ci saxeex bi daal di xaddasanaa yaxyaa te waxul kan la maanaam imam al buxaari tàmbalee xadis bi xaddasanaa yaxyaa te waxul kan la rek mooy yaxyaa ibnu muusa al bolxebi rahimahullahu taala imam al buxaari ak moom abu daawud ak moom tirmisi ak moom nasaayi moom ñoo soloo ci moom rahmatullahi ala al jamii maanaam kon imam muslim ak imam ibn maaja ñom ñoo wul ci mom waye ñi ñom ñoo solo ci mom te directement lañu we ci mom mu ne qala hadathana abu muawiyah te mom moy muhammad ibn khazim ad-darir rahimahullahu taala waxon nañ la li tax ñu tuddé ko ad-darir moy bimu amé ñent ñeenti at ci la silmaxa mo tax ñu nan ko ad-darir mom al imam abu muawiyah ñu génn àdduna 194e annee ginnaaw gàddaayu yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ah, ah, moom nekkoon ci imaam yu mag yi bokkoon ci boroom xam-xam yu sell rahmatullahi alayhi ah, dégg moom moom dégg na ci imaam al amash rahimahullahu taala lu tollook ñaari junniy xadis waaw ñaari junni xadis la déggee ci imam Ahmad rahimahullah waaye dafa feebar feebar bu méttee méttee métti mu fàtte mu fàtte juróom-benn téeméer ci xadis yooyu fekk mokkaloon na ci deux mille yu mu jàngee ci imam euh, al Ahmad Suleymaan ibn Mihraan al Kahili rahimahullahu taala moo tax moom mooy comme la moom xaafis ibn xajar rahimahullah wax ci taqribu tahdib mooy moo dàq mokkal ci xadisu Ahmad xadisu Ahmad yépp moo leen gën a mën a mokkal moo leen gën a mokkal rahimahullahu taala waaye nag euh, dañuy wax ne murji la woon maanaam euh, dafa amoon mur maanaam murji ah mooy ñi nga xamante ne dañoo jàpp ne euh, jëf maanaam maanaam bàkkaar du wàññi nit ki comme ni nga xamante ne maanaam du wàññi ci ngëm yàlla nit ki dara comme ni nga xamante ne noonu la jëf ju baax du jar dul jariñe yéeféer dara maanaam loolu ak tamit ñoo xamante ne ñoom du dañ yàlla baax na maanaam pour ñoom murji ay dañoo jàpp ne gisoon nañ leen ci kitaabul iman ñoom dañoo jàpp ne euh, ya nit ki euh, euh, maanaam bu garaawul daal maanaam dara garaawul voilà en dara garaawul te maanaam lu xewit waaw amul problème daal. ngëm am solo. voilà ngëm rek am solo mu ngoog. voilà ngëm rek am solo ak xol rek am solo. jëf ji taxu koo bàyyi taxu koo am solo dégg Euh, ànd ak loolu yëpp <coughs> euh, al euh, imam Abu Dawud nag moo gën a tar moom ndax daf ne raisul kaana raisul murji abil kuufa maanaam moom moo nekkoon jiitu murji ay fële ca kuufa dégg nga waaw waaye nag waaye tamit ba bu ànd loolu yëpp dëgëral nañ ay xadisam quand même maanaam nekkoon na siqa la ci borom xam-xam yi rahmatullahi alayhim andak ne nitu manam manam pas-pasu bida bobu amee won nako ko mom na mu ne anil amash mu jële ko ci al imam amash moy suleyman ibnu mihran al kahili al asadi rahimahullahu taala abu muhammad moy dafa abu muhammad al asadi al kahili rahimahullahu taala moom wa kufa la waye ci sanam tabrestaan la hmm? moom mi ngi gane àdduna soixante et unième année ginnaaw gàddaay yonente bi sallallahu alayhi wa sallam génn àdduna cent quarante cinquième année rahimahullahu taala waxoon nañu ay mbiram waaw dégg waaw moom ci ñi nga xamante ne dañoo gis Seydina Anas moom ci taabi a ndaw ci la bokk maanaam mën na sa daanaka mën naa wax sax ne mooy taabi bi gën a ndaw maanaam euh, ci en tout cas ci ñiy solo xadis lu bëri ñu ngi soixante et unième année ci la génn li la gane àdduna tabi yu ndaw yi la mom gis na sayyidna Anas radiyallahu taala wa waaye solowul ci mom dégg nga mom mu ne an muslim te mom moy muslim ibnu sabih al sabih muslim ibnu sabih al alhamadani rahimahullahu taala dàqantaram nekkoon abu duha momit wa kufa kuufa la rahimahullahu taala min gen adna àdduna lot at gadda yenenbi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam آه، موم نك تي تابعي لا بوكو تي تي ثقاتي لا بوكو امام الحافظ ابن حجر رحمه الله نانا ثقه الفاضل كو وور لا تي بوروم گنل لا آه، ا بينا تامت آه، امام ابن سعد نانا كان ثقه كثير الحديث نانا كو دك كو دغر لا كو بري حديث لا تامت رحمه الله تعالى نيوم نيب اي حديث سين حديث نيوم ديكرو سته ا مام ليكو دالا تي ابو ابو معاويه عبد رحمه الله تعالى محمد بن حازم الدرير عمر سليمان بن ميران الكاري محمد بن صبيح abu duha alhamadani ñoom ñëpp seen xadis ñu ngi ci kutubu sitta ñoom ñuy waa kuufa la ñoom ñëpp yaxya ah li ko ah yi ko daana ci yaxya ibnu muusa bi ñoom ñëpp ay waa kuufa lañ tamit an masruq te moom mooy taabii bu mag boobu rahimahullahu taala masruq ibnu abdurrahman alhamadani te moom al abdurrahman muy bàyyam al ajda moo naan ko mahru masruq ibnu al ajda rahimahullahu taala abu aïcha mooy dàqantalam rahmatullah alayhi mi ngi génn àdduna soixante-deuxième année ginnaaw gàddaay yonent bi sallallahu alayhi wa alihi euh, wa sallam bokk na ci taabii yu màgg yi ci siqaat yu gën yu mag yi ak imaam ibn Hibbaan kuufa maanaam dafa bokkoon ci jaamkatu yàlla yu màgg yi nga xamante ne ñoom ñoo nekkoon ci waa kuufa hmm. Hmm. waaw bokk na ci ñi nga xamante ne da eh, daan and ak imam imam seydna abdullah ibnu masud radiyallahu taala anhu imam seydna abdullah ibnu masud radiyallahu taala anhu la daan àndal bokon ci ñi nga xamante ne da len dan da alquran dan ubi nek borom ko bu mak naka noonu ci hadith tamit mu nekkoonte ba pare dan bokku na ci limu ragne ko tamit moy da dan julli momit da dan guddi di julli ba tanki newi da nga taala eh, imam murrah rahimahullah taala neena hamadaniya amul kenn ku mu jur ku melni ni masruq rahimahullahu taala imam ash-sha'bi rahimahullah taala neena ma alimtu atlaba minhu lil ilmi dégg ba pare mu tek ci ne kana alamu bil futya min shurayh rahimahullah manam mom masruq rahimahullah taala xawmu ma ku ko sàkku xam-xam niki noonu moom moo gën a xam fatwa ke Shurayh te xam ngeen Shurayh yéen a koy fàttaliku mom mo nekkon xaadi kufa ba sayyidna Ali bi ndaw soos ñewé ne gis na mbërëg ñett yoon ci weer mom la ko mom la ko waxon ne ko Shurayh xolal bir mi àtte ko koku nak nga xam ne mo fa nekkon xaadi imam Ash-Sha'bi rahimahullah neena Masruq mi moko ko na xam àtte moo ko ëppoon xam-xam ci ci ci ci fatwa waaw moo tax soxnaam nee na moom da daan julli ba tànk yi néew yi nee na tamit uh, uh, uh, abu ishaq rahimahullah nee na xajja masroq fa ma naama illa sajidan masroq daal aj na aj na waaye daal liñ ko gis yëpp maanaam moom du lu dul day sujjóot maanaam buy sujjóot rek lay maanaam mooy koo xamante ne nangu wuta nelaw day day buy buy nelaw mooy nelaw da ko bett waaye nekkul mukk koo xam ne day nit nelaw waaw waaw dégg nga kon moom nag rahimahullahu taala rahmatan waasi'a da dégg nga xam ne jàng na Seydina Abdullah ibn Mas'ud Seydina Ali ibn Abi Talib Seydat Aïcha radiyallahu anha et cetera maanaam ñu mag ñoo ñëpp jàng na ñoom Seydina maanaam mu fii nag mi ngi jëlee am mu am Mughira ibn Shu'ba rahimu radiallahu taala anhu sahaaba bu màgg boobu borom jaloore yi kawe borom gëneen yu màgg yi almugirat ibnu shoba radiallahu taala anhu almugirat mu abu isa asaqafi dañ koy xamit abu abdullah di wax abu muhammad moom mi ngi génn àdduna juróom fukkeelu at ginnaaw gàddaay yonent sallallahu alayhi wa sallam cinquantième année ci la génn àdduna yéena ñu fàttali ko xadis boobu nga xam ne ci moom la jaril ibn abdullah radiallahu taala anhu wax ba mu yéegee ci kaw mimbar ba bis bi muxirat ibn shoba radiallahu anhu génnee àdduna maanaam ndax moom moo nekkoon ki nga xam ne moom muxirat ibn shoba radiallahu anhu moom moo nekkoon ki nekkoon yi kuufa moo fa nekkoon nekk qaadi bi moom nag radiallahu taala anhu fekke na xare xudaybiya waaw dégg gis-gisam nag rafet na ba nga xamante ne dañ daan joxe exemple am sax ci ay gis-gisam yu rafet maam dañ naan eh kii day waxam dafa rafet comme Mughira ibn Shu'ba radiyallahu anhu maanaam te eh, rafet na comme ni Mughira ibn Shu'ba radiyallahu anhu ndax eh, moom ci waa mbokkam yi déjà laataa muy nekk jullit rek sax dañu dañ rafet rafetlu woon ay xalaatam. radiyallahu taala anhu wa ardaahu wa anna bihi moom euh, mi ngi génn euh, àdduna fekk soixante-dix ans la amoon maanaam cinquante année ginnaaw gàddaay yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ci ñaari saxiix yi maanaam saxiix al Buxaari ak saxiix imaam Muslim am na ci douze xadiis euh, imaam al Buxaari wéetoo benn xadiis imaam Muslim wéetoo ñaari xadiis ci ay xadiisam radiyallahu taala anhu wa ardaahu wa jaala a'aaliya firdawsi maswaahu kon xadiis bii ñoom ñëpp waa Kuufa lañ loolu ñoom ñëpp nag li ko dalee ci ku njëkk ba ci ku mujj ki ñoom ñëpp waa Kuufa lañ dëkk mu ne annahu qaala moom sayyidna Mughira ibn Shu'ba radiyallahu ta'ala nee na kuntu nekkoon naa ma annabi daan ak yenente bi sallallahu alayhi wa sallam fii safarin ci tukki hadis bi gis nañ ko gis nañ ko gisaat ko euh, fa qaala gisoon nañ ko ci kitaabul wudu naka noonu gisaatoon nañ ko euh, ci euh, ginnaaw gi tamit maanaam gis nañ ko gisaat ko gisoon hadis bi hmm. gisoon nañ ko tamit ci kitaabul iman mu ne fa qaala mu ne eh, moom yenent bi sallallahu alayhi wa sallam eh, waaw maanaam eh, ci wala boog kitaabul wudu waaw ci lañ ko njëkk gisee hmm? waaw du kitaabul iman beneen lañ gis mais ci kitaabul wudu ci lañ ko njëkk gisee naka noonu waaw kon ñaari yoon lañ ko gis ci kitaabul wudu bi moom mooy ñetteelu yoon bi koy gis mu ne ah, mu ne kon dama àndoon ak yeneen bi sallallahu alayhi wasallam ci tukki fa qaala mu ne yaa Mughira ah yow Mughira ibn Shu'ba radiyallahu anhu xus jëlal al idawat ah, baag bi maanaam mooy ah, xeet maanaam xeetu kii la ndab la bu ñu defaree bu ñu defaree eh, ndab la bu ñu defaree der voilà mu ne ko jëlal ba baag bi dégg nga fa axastuha nee na ma jël ko fan talaxa mu daal di dem rasulullahi ndawal yàlla sallallahu alayhi wasallam xatta mbete tawaara mu daal di sori. an ni ma manam nga xamantene nak manam daf ma sori ba am xam ne gisatuma ko fa faqada mudadi fat hajatuhu ajum wa alayhi fek nak mi ngi won ci kawam jubbatul shamiya gis nga li motax imam imaam al buxaari tuddee bunt bi babu salatu fil jubbati shamiya manam ngir ne jubba bi mu solon mom jubba buñ defare sham la nee fa zahaba mudadi daal di génn moom bi mu demé li yukhrija yadahu mu daal di ngir mu génne loxoom min kam mi min kummihaa euh, euh, ci ci ci ci euh, ci ci gémmiñ gi waaw ci gémmiñ gi maanaam gémmiñu loxo bi maanaam ndax jubba bi ni muy mel xam ngeen ni kii bi day xat day day xat waaw ngir mu mën koo génne nag loxo bi maanaam loxo loxoy jubba loolu tamit bokk na ci day xat mais moom ci boppam day yaatu ngand voilà nga. Hmm. moo tax bu mu koy génn nee na fa daaxat mu daal di xat nee na fa axraja mu génnee yadahu loxo min asfaliha génnee ko ci suuf mu génne loxo bi ci suuf. nee nga fa sababtu ma daal di sotti alayhi ci moom maanaam mooy bi mu demee jë jëfandikoo ndox mi waxoon nañ ni loolu bokk na ci liy jàngale ne nit ki buy dem wanag maanaam mën na naa jëfandikoo ndox te loolu tamit. wuuteeg lii nga xam mom la imam malik waxon rahimahullah ne imam malik moom daf doon bañ ne won yenen yeneen bi saa saa mës ta jëfandikoo ndox bu demee wan ak xeer rek la daan jëfandikoo euh té loolu masala boobu ak yi ci gisoon nañ ko voilà mais da fekk ne moom c'est normal xamul hadith yi ngir ne hadith yi wa kufa ñoko solo hein ah du wa madina té mom madina la dekkul té medina la gané aduna fa la màgge fa la jànge keneen ku mu benen serigne budul wa medina ku mu jànge ci yow c'est parce que dangaa ñëwoon Madina wala boog ngeen tase ci at bi loolu moom moo tax dégg kon maanaam bu ko xadiisu kuufa bi rëccee loolu jaadu na maanaam moom euh, loolu kon maanaam mooy ne mëneef naa jëfandikoo ndox te loolu euh, te jëfandikoo ndox mu gën sax waaw waaye jëf mëneef naa jëfandikoo tamit xeer ak lépp lu yor àtteem comme papier toilette yi ak yu mel noonu mm-hmm. maanaam loolu yëpp tam mëneef na leen a jëfandikoo ak masala yooyu teqantal ya woon gisoon nañ ko ci Eh, te ay yooya waaw ci buntu kitaabul wudu il walillahi alhamdu wal mu ne dégg nga nee na kon ma sottil ko ndox loolu tamit bokk na ci liñ ci wax mooy ne gor mënef na koo jëfandikoo ngir mu lay eh, maanaam mënef naa eh, gor di la jàppale ci liggéey loolu te loo xam ne doo ko ca fay loola dagan na waaw loolu tamit dañ ko cay xame beneen mu ne beneen bi ci des moom mooy ne mënef naa jàppal jàppale nit ngir mu jàpp maanaam dimbali ko ci njàpp waxoon nañu nag teqantal bi nekk ci euh, dimbali nit mu jàpp voilà maanaam dem di ko raxasal ko loxo yi raxasal ko tànk yi raxasal ko kii jox ko seexal ko ak yu mel noonu maanaam sëlum ko maanaam mu raxasal ko ak kanam yooyu te fekk moom mu man ko loolu moom gis nañ ni loolu dañ koy tere ah <laughs> loolu moom jaaduwul waaye nag dimbali ko gir sotti ko <laughs> mu raxasu loolu man loolu dagan na waaw te lii moom moo koy wane am na nag borom xam yu ko sib rahmatulah waaye lii mooy tegtale ne amu si amma wutal ko dox dong mom mu japp bopam nak gannaaw gi loolu mom ñepp daganal nañ ko dégg nga nee na kon fa tawadda amu daali japp wudu ahu jappam li li ñeul julli waye wa masaha mu masa ala ku fay ci kaw ku fami summa mu julli maanaam euh, lii wane ne lan mo am rapport bi bi hadith bi am ak buntu bi nak mooy ne bi mi julli maanaam wul yéeri boba sol benen Manam yeri bi nga xamne moy mooy bi jóge saam mom la sol te booba saam ay yé maanaam ña fa nekkoon du noonu ay jullit loolu yëpp day tegtale li tax imam al-Bukhari rahimahullahu taala indi xadis bi maanaam ci buntu bi te moom mooy ne ak li tax mu nose buntu bi maanaam mooy fu mu mën di jóge moo tax taaliqaatam yi mu tudd ci yére yu majuus sol wala yu majuus defar wala boog bu jóge yemen te fekk ñu ñu daal koy cuube ak ay mbéewal ak yeneen ak yeneen dégg nga rahmatullah alayhi rahimahullahu rahmatan waasa moo tax moom dafa am dégg-dégg bu xóot rahimahullah Ah, xadis bi kon imam al buxaari rahimahullahu taala indoon nag xadis numéro 182 ak xadis numéro 203 ak xadis numéro 2918 ak xadis numéro 4421 ak xadis numéro 5798 ak 5799 amma imam muslim moom indi na ko juróom benn yoon ci xadis numéro 274 ah, al imam at ah, tirmidi moom indi na ko xadis numéro 1768 imam an-Nasaa'i indi na numéro 17 82 108 123 124 ak 125 imam ibn majah indi na numéro 389 ak 545 imam Ahmad ibn Hanbal moom lu bari la ko indi kon ñoom waa saabu kutubu sitta ñoom ñëpp indi nañ xadis bi ba mu al imam Abu Daawud as-Sijistaani rahimahullahu taala rahmatullahi rahmatullahi ala al-jamii